membre yi ci groupe dégg diine ci mbooleem ay sipooram ñu ngi leen di nuyu nuyoob lislaam di leen wax asalaamu aleykum wa rahmatullah umpule woo leen mukk taxawaay bi dégg diine am ci tasaare xam-xam ak yaatal daawa sunna ci biir senegaal ak li ko wër doomu réewum Sénégal di ci jëriñu ci biir réew mi ba ci bitim réew mu leen di jottali xam-xam bu dëppook alquraanul karim ak sunna yonent bi sallallahu alayhi wa ak fu ngeen mën a nekk ci réewi àdduna bi liggéey bu rëy bi nag yeyoo nañu taxawu ko saxal ay dëggoom ba mu gën a mën a taxawe liggéeyam looloo tax dégg diine aajowoo yaatal couverture ci yeneen région wu Sénégal yi ci lu génn Dakar ak di beesalaat ay matériel am saa su nekk ak lu koy jàppale ci yembal ay frais de fonctionnement wam looloo tax direction bu dégg diine ubbi buntu yiw tàllal ci loxo ay aboneem ak ay membram ci ay cotisation yoo xam ne nag coobarewu rekk la lu ko tàmbalee ci 200 francs ba ci 500 francs ba ci lu ko ëpp ci weer wu nekk loolu mën a doon ndimbal lu rëy ngir dégg diine gën a mën a taxawu liggéeyam ngeen mën a joxe seeni participation jaarale ko ci numéro bile 78 514 78 38 ngeen mën ko jaarale ci Wave Orange Money Wizall Ria wala Western Union dégg diine seen loxo ci biir ngir mu gën a mën jëm ci kanam ngir mu gën a mën a jëm ci kanam ngir mu gën a mën a jëm ci kanam دعوة ربي بارك فيها علماء فاضل حافظوا عليها دعوة ربي بارك فيها علماء فاضل حافظوا عليها وادي نصيحة بنصح بيها ما تنسوا الفضل للي راعيها وادي نصيحة بنصح بيها ما تنسوا الفضل للي راعيها ما تنسوا الفضل للي راعيها سلفي وألها لأي جليس دعوة عظيمة وفخر أنيس سلفي وألها لأي جليس دعوة عظيمة وفخر أنيس شفت القيم أبو إدريس علي وحكمة مسخر ليها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 wa ala alihi wa ashaabihi ajmain wa man tabiahum bi imaanin wa ixsaanin ila yawmi ddin amma baadu assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ginnaaw biñ sante buur yàlla subhaanahu wa taala di julli si sunu yonente muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam jaamiatu abdullahi ibn al-mubaarak rahimahullah comme niñ ko baaxoo di def at mu ci ramadan di taxawal ay muxaadaraat ak ay nadawaat ak ay duruus yoo xam ne dañ ciy jàppalanteeg seeni mbokk jullit tey nag bi idnillahi taala jataay bi mu nekk jataay bu njëkk ci ramadaan di ñaan yàlla subhaanahu wa taala li tàmbalee ci bu njëkk bii ba fa muy yàlla na yàlla subhaanahu wa yombal lépp te barkeel ko waxtaan wi comme ni ngeen ko déggee ki ko war a def mooy abu muhammad al ustaad bi mu war a traité ak ñun mi ngi aju ci athiqatu billah inda shadaid mooy dëgërloo yàlla subhaanahu wa ak wékku ci moom ak dellu ci moom jamonoy metti metti jamonoy crise mu nekk tomb bu am solo boo xam ni jullit bi saa su ne daf koy soxla ndax ni ñu yàlla subhaanahu wa taala bindee léeg-léeg ay gaar dina dinañu dab ci ay metit ak ay tiis yooyu nag dinay aajowoo lu ñuy delloo ci borom bi subhaanahu wa taala ak di ñu dëgërloo ci borom bi subhaanahu wa taala comme ni ngeen ko xamee muxaadara bi ñu ngi ciy ànd ak sunu mbokk yooyu nga xam ne juróomi at ci ren ñu ngi koy ànd ak ñun muy waa mi ñoom ñooy sponsorisé muxaadara di fi am yépp yàlla na yàlla subhaanahu wa fay leen di leen ñaanal yàlla subhanahu wa taala mu yokku leen te def lépp fii misaani xasanaatihim di sàkku tamit képp koo xam ne filmé na ko même bu koy mën a tasaare tamit na ci def seen logo ndax loolu moom mooy charte bi nga xam moom la ñu chartante woon ak ñoom kon insha allah du ñu guddal ci wax ji lool dañuy bàyyi abu muhammad mu tàmbali conférence am di ñaan yàlla subhanahu wa taala mu fecc aw làmmiñam dëgëral ko ba lépp loo xam ni bëgg na koo jariñ yàlla subhaanahu wa taala yombalal ko ko hada wa sallallahu wa sallam ala nabiyina muhammad bismillahi rahmaani rahim alhamdulillah salaatu wasalaam ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala ñoo ngi sant sunu boroom cant gi nga xam ni moom la yellool di ko dimbandikoo di julli ci yonent yàlla muhammad salallahu alayhi wa sallam di nuyu mbokk yi bu baax di ndokkeel ñépp ci weeru koor wi ñu nekk li ci jiitu mooy ñu sant sunu borom subhaanahu wa taala mi ñu may ñu fekkee kooru ren am na ñu ko waraloon daaw koor gi ren fekku leen fi sunu boroom moo leen yóbbu ci coobareem te ñun defaluñ yàlla ñoom luñ defalul yàlla kooku mbaaxu sunu borom la ñu santee ko sunu boroom te yonent bi alayhi salaatu salaam wax ne ku woor kooru daaw kooru ren ñëw nga woor ko dañ lay jéggal bàkkaar yi nekkoon ci diggante bi soo moytoo bàkkaar yu mag yi kon ñu rafet njoot suñu borom ne kooru daaw gi wooroon nañ ko bu ren bi entamé nañ ko ñu ngi koy woor rafet njort ne suñu borom jéggal nañu suñuy bàkkaar parce que waxu yonent bi alayhi salaatu wasalaam la te dañ koy gëm beneen bi it mooy ñaan suñu boroom mu may ñu ànd ak tal ak wiir ak sago mën a woor koor gi ba mu jeex tàkk si kii sàkk nekkul ne dina am ñu entamé koor gi di ko woor waaye dañ ko àggale loolu it mbir yi noonu la bindoo loolu mooy asunanullah alkawniya mooy na yàlla yàllay tër muy am ci dund gi loolu nekk na loo xam ne lu mënta ñàkk la kon ñu ñaan sunu borom mu boole ñu ci ñi muy bàyyi ñu mën a wor koor gi bénéficié wu ci julli gi ñaan yi ak euh, li nga xam ne mooy tuyaabay koor yépp sunu borom bàyyi ñu mën ko fekkee ba mu nangul ñu lépp ñu ngi ñaan loolu sunu borom yomb na ko mën na ko yàlla nañu ko yàlla defal euh, mbokk it ñu ngi fàttali ne Mm, li nga xam ne mooy ndogu yi nga xam ne ñu ngi koy sàkku ci jàkka ji am na ko toog ci buntu bale caw mi ngi toog ci buntu bale euh, képp koo xam ne am na lu muy participer mu joxe ko parce que loolu it ak koor ñoo ànd woor ak joxe ci yoon yàlla woor ak dogal ku dog loolu ak koor ñoo ànd yonent bi alayhi salaatu salaam moo ko samp mu doon sunnaam bàyyi ko fi mu doon njàngaleem te loolu day woy fii ak koor a ngi am rek day ànd ak moom mbokk yi ñuy waxtaanee asiqatu billahi fil azmat mooy wóolu yàlla am confiance ci yàlla ci jamonoy jafe-jafe lan moo tax thème bu am solo bu ñu war a waxtaanee la ñun ñëpp ñoo ko aajowoo sunu dund li ëpp ci doomu aadama yi seen digganteeg yàlla day normal seen digganteeg yàlla day baax dañuy sawar ci jaamu yàlla topp yàlla fii ak mbir yi mi ngi normal mi ngi baax fii ak jàmm a ngi xew fii ak wërsëg wi leen yàlla jox mi ngi sotteeku wér-gi-yaram gi ñàkkuñu ko ila yi nit ñi dañuy rafet njort ci seen borom mais nit ki bu ko yàlla wàccee ci moom nattu moo xam nattu bu ko dal moom ci boppam la natt boobu mën naa nekk nattu wér-gi-yaram mën naa nekk nattu wërsëg jékki-jékki amoon ñàkk lu gën a bari nit ñi dootuñu wóolu yàlla dañuy caalit léeg-léeg bu fekkee nattu gi du ci moom ci jëmmi boppam waaye ci njabootam la am na ci ku feebar wala am na ci ku musiba bu métti dal ba mu ub boppam su boobaa loola mën na kaa yóbbee ba wóolu gi mu waroon a wóolu yàlla day yàqu ba mën na koo tàbbal ci lu ko yàlla tere woon ngir rek natt boobu dal mbokkam mi mën a teggeeku loola bari na lool lu ñuy gis beneen bi mooy nit ki ki ko féete kaw jiite ko moom mu nekk koo xam ne moom lañ jiite diggante bi su fekkee ne relation de confiance lalu ko wóoluwante lalu ko nit ki wóoluwul ki nga xam ne moo ko jiite moom mi jiite wóoluwul ki mu jiite loolu bu dee ci kër kër ga day yàqu bu dee ci entreprise entreprise ba day am jafe-jafe parce que chef bi wóoluwul ñi muy liggéeyal ñi koy liggéey ñi koy liggéeyal wóoluwuñ ko climat confiance amul seen diggante loola bu nekkee ci ab bërëb bu ñuy liggéeyee moo xam école la moo xam société la moo xam usine la moo xam lu mënti doon loola pour mu liggéey bu yàqu lay jur dootul avancé lan moo tax mooy climat de confiance ràññewu fi loolu moo tax kon climat de confiance diggante jaam bi ak borom bi dafa yell leneen li mooy dafa am ci doomu aadama yi ñoo xam ni dañuy jaamu yàlla comme ni ko yàlla wax min annaasi man yaabudu llaha ala xarf dañuy jaamu yàlla teg ko ci ay avantage fii ak mbir mi mi ngi am avantage dañuy sawar a defal yàlla maanaam mbir mi day xaw a nekk genre chantage borom bi damay defal lu baax defal ma may mbir nose lépp normal ma nekk ci li mu bëgg demeewul noonu su boobaa man damay jàpp ne yàlla defalu ma du ko defal loolu nit kuy xalaatee noonu loolu musiba la loolu moo waral nit ki bu fekkee digganteem ak boroomam wóoluwul yàlla loolu li mu koy jural mooy mboolem jaamu yàlla yi muy defa ci wóoluwul sax ne yàlla julli gi muy julli yàlla dina ko ci fay tuyaaba dootul wóolu sax ne koor gi muy koor yàlla dina ko ci fay tuyaaba jàng alxuraan gi muy jàng zikri gi digle lu baax tere lu bon dootul jàpp ne yii vraiment amal na ma njëriñ parce que moom digganteem ak yàlla ak boromam dafa yàqu wóolatu ko loolu moo waral mu mën a bàyyi julli juróom nga ne ko am na julli goo xam ne soo ko jullee say buntu wërsëg ubbeeku mu jaral ko julli googu moo gën a foor ci moom julli juróom moo koy jaral ñu ne ko sarax bi yàlla wax wala azaka nga xam ne dañ la ciy fay tuyaaba rek te moom amatul confiance ci yàlla ak tuyaaba yi ñu koy wax ñu ne ko am na sarax boo xam ne boo ko defee visa bi ngay wut da nga ko am wala soxna si ngay si ngay labat da nga ko da nga ko takk post bi ngay wut danañ la ko jox concours bi nga xam ne moom ngay jéem a def concours bi di nga ko réussir loolu dina ko jaral loolu mooy gën a fort ci moom génnee azaka mooy gën a fort ci moom saraxe te yàlla rek tax parce que saraxe bi te yàlla rek tax yaakaaru ci tuyaaba parce que amatu ci confiance gëmul ne sax yàlla dina ko ko fay wóolatu ci yàlla mais comme bii njëriñ làqu na ci intérêt làqu na ci booboo ko ëppal doole. loolu mën a waral nit ki bàyyi ay askaaram di def askaaru sabaax di def askaarul masa du jàng alxuraan benn zikr bu yonent bi jàngale du ko def ñu ne ko am na zikr boo xam ne boo ko defee 4444 fois mu jural la nangam ak nangam ak nangam mu jaral ko guddi gi du nelaw mu mën a nekk ci zikr boobu di rey boppam lan moo tax mooy moom dafa wóolootul ne zikr ba muy def noona rek te yonent bi digle ko yàlla dana ko ci fay tuyaaba mais zikr bii nga xam ne moom intérêt moo ci lalu wax nañ ko ne am na njëriñ lu muy jur moo gën a fort ci moom bi yonent bi jàngale léegi nit koo xam ne digganteem ak yàlla confiance lalatu ko dafa yàqu fii la ko yóbbu lépp li muy defati digganteem ak yàlla intérêt la ciy lal mbir mi am na lu may jëriñ ma def du ma jëriñ dara ma bàyyi lan moo tax mooy wóolootul yàlla ci li ñu tuddee al iqaaba amatul siqa ci ne moom yàlla dina ko fay tuyaaba bal mbugal sax jàppatul ne moom bu defee lu bon yàlla dina ko ci mbugal ba tax na ragalatul def lu bon nit ki su àggee foofu musiba dal na ko maanaam yàqute gu rëy àgg na fa loolu moo tax loolu mooy ahamiya mooy importance su asiqatu billah mooy wóolu sunu borom subhanahu wa taala beneen bi mooy li tax ñu war a waxtaanee lii mooy xaajatuna jamian ila siqati billah ñun ñëpp dañoo aajowoo wóolu yàlla kenn ku naan la man aajowooma wóolu yàlla amut wala ku koy wax it lu muy wax ñun ñëpp dañ ko aajowoo sunu borom moo soxlawul dara ci ay jaamam waaye jaam moom dañ ko soxla yaa ayyuhan naas antumul fuqaraau ila allah wallahu wal ganiyul xamid yéen ñëpp a soxla yàlla kii feebar soxla na yàlla dolli ko soxla na yàlla yàlla jox ko wér-gi-yaram ki soxla na yàlla dolli ko wér-gi-yaramam sàmm wér-gi-yaramam ki ñàkk soxla na yàlla jox ko wërsëg ki am sax soxla na yàlla sàmm li mu am barkeel ko ba pare yokk ko kon kenn ku naan la benn instant boo xam ne mën naa koy dund soxlawuma yàlla amul nit ki foo nekk lu mu gën a kawe ci ngay gën a soxla borom bi subhaanahu wa taala beneen bi mooy daañ xam le lan mooy maana siqa wóolu yàlla mooy lan ñetteel bi wasailu tafsiliha yoon yi jaam bi jaar pour digganteem ak yàlla dëgër confiance lal digganteem ak boromam ci ay jaamu yàlla am du ko lal ci ay intérêt daañ ci waxtaane it namazij tatbiqiya ay exemple pratique yu ne ci alxuraan ay exemple pratique yu ne ci li nga xam ne mooy sunna yonente bi alayhi salaatu wasalaam di wone nit ki yoon yi muy jaar pour mën wóolu boromam subhaanahu wa taala juróomeel bi mooy samaratuha mooy soo wóoloo yàlla en tant que jaamam résultat bi lan la mbokk yi doomu aadama yi muy tomb bu njëkk bi muy xaajutuna ila siqa dañuy wax ni dañoo aajowoo di waxtaanee tomb yu mel nii rawatina jamonoy jafe-jafe rawatina jamono yi metit ak ay nattu ñaareel bi mooy tomb bii tomb bu ñu war a xamal doomu aadama yi la jaam yi dañ ko war a xam parce que ñu bëri dañ ciy juum seen diggante ak seen borom ñoom ñu xam ko di ko dund yar ci seen njaboot ñu yar ci société société bi yar ci jullit ñi pour ñu xam ko rafet njort seen diggante ak seen borom rafet njort seen diggante ak seen diini rafet njort seen diggante ak seen yonent sallallahu alayhi wa alihi wa sallam beneen bi mooy dindi découragé ak tàyyi ak ñaaw njort ci bëtu ci euh, bopp jaam bi digganteem ak boromam nit ki amul fooy toll ba dootoo rafet njoot ci sa borom ba découragé ci sa borom ba jàpp ni sa borom mënatulaa wall wala mënatulaa indil solution wala mënatul defar say mbir yàlla bi muy wax ak jaam yi dane qul yaa ibadiya allazina asrafu ala anfusihim xoolal asrafu ala anfusihim laa taqnatu min rahmatillah inna allaha yaxfiru zunuba jamia alimaamul Baxawi bi muy firi aaya bi dafa wax lu am solo mu ne borom bi dafa wax yaa ibaadiya allazina asrafu ala anfusihim mu ne waxul rek ibaad mais daf ko idaafa ci boppam yaa ibaadi yéen samay jaam borom bi ne samay jaam yi nga xam ne da ngeen a ëppal ci ay bàkkaar ëppal nañ ci ay bàkkaar ba pare yàlla tuddee leen samay jaam moo nañ ëppal ci ay bàkkaar rek yàlla ne yàlla tuddee leen ay nit waxoon yaa ayuhannaas walla mu waxoon rek wax baatu jaam ayyuhal ibaad mu généraliser bañ ko askanalee ci boppam mais def leen idaafa ci boppam idaafatu tashrif yaa ibaadi yéen samay jaam du ngeen jaamu ñeneen seen i bàkkaar lu muy bëri bëri lu ngeen def lu bon ba découragé samay jaam ngeen kon boog laa tax na taqnatu min rahmatillah bu leen découragé ci sama yërmande ba jàpp ne du ma leen yërmati ba léegi samay jaam ngeen li ngeen def lu bon lu mu bëri bëri ba jaaxal leen ba ngeen jàpp ne alku ngeen samay jaam ngeen bu leen découragé sama yërmande inna allaha yaxfiru zunuba jamia man may seen borom te man bàkkaar yépp lay jéggale waaw xanaa loolu dàq na ñàkkati confiance ci sa borom dàq na teggi li nga xam ne moom mooy euh, découragé ak tàyyi ci li nga xam ne mooy sa yërmaande borom subhaanahu wa taala beneen bi mooy jàmm ak salaam fii ak mi ngi xew doo xàmmee jaam yi seen degré ngëm doo xàmmee tamit kii naa fiq ak ki dul naa fiq waaye métit métit jafe-jafe coono ak natt gu métti bu ñëwee ci la ñuy ràññee ana kan mooy ki gëm yàlla ngëm yàlla gu dëggu kan mooy ki ngëm yàlla ngëm yàlla gu yolom kan mooy ki gëm yàlla ngëm yàlla gu suufee lool waaye kan mooy ki dëggu kan mooy ki naafiq yàlla événement yi mu doon xewal bi yonent bi alayhi salaatu salaam gàddaay dem Medina événement yooyu mu doon ñàkk am yooyu am gi mu doon am moo doon leeral al mu'minuuna as-saadiquun ak al munaafiquun il fallait que yooyu événement yooyu déroulé am pour ñu xam ñi gëm yonent bi topp ko ak ñen ñooy naafiq mais su fekkoon yàlla dafa bàyyi rek jàmm ak salaam di am ñëpp na yonent bi ñun yow lañ gëm gëm nañ yàlla gëm nañu alxuraan ci lislaam lañ nekk mais yonent bi du xam kan mooy ki ko gëm ak kan mooy ki naafiq mais il fallait que yàlla leeral ko loolu moo tax léeg lekk nattu ak jafe-jafe bu ko yàlla indee dafa am ay position yu ci dégagé wu dafa am lu yàlla di bëgg a leeral yàlla dafay bëgg leeral ki nekkoon ci dëgg ki ne ci njuumte jàng ci njuumte loolu dootu ci jaar ki nga xam ne moo ne woon ci dëgg mu dolli ko yaqiin dolli ko mu gën a xam ne man li ma nekk dëgg la gën ko jàpp ba du ko bàyyi sikki sàkk du ko du ko du ko dikkal ci li mu nekk mu xam ne li ma nekk mooy dëgg loolu moo tax suñu borom bokk na ci ay xikmaam mooy léeg-léeg eh, izhaarul farq bayn al muminin wal munafiqin wal kafirin wal mutasanniin mooy leeral diggante ki gëm yàlla dëgg diggante naafiq bi ak kuy wone loo xam ne gëmu ko ci jamonoy fii awqaati shadaid ci jamonoy li nga xam ne mooy jamonoy jafe-jafe loolu moo tax nit ki amul situation bu muy mën a dund bu dootul wóolu yàlla su ko defee rek ba jàpp ne loolu mooy njiglaayam mi ngi gën a mi ngi gën a euh, sànku mi ngi gën a alku sunu borom déglul ci yonent yi yonent yëpp la boole di leen wax mu ne yonent yi suñu leen mësaan a yónni dañuy dem ba toll ci moment boo xam ni mbir mi day métti diis ba ñoom dañuy jaaxle ba xaw a sax décorage foofu ñuy xaw a découragé yàlla nee na foofu laay indee sama ndimbali déglul li borom bi ci sootu Yusuf nee na xatta ida stay asa rusulu wa dannu annahum qad kudibu jaa qad kudibu jaahum nasruna fa nujjiya man nashaau wala yuraddu basuna an alqawmi almujrimin borom bi mu ne xatta ida stay asa rusul yi dem ba xaw a tàyyi dem ba xaw a yoqot nee na wa zannu annahum qad kudibu ñu dem ba jàpp ne weddi nañ leen kenn dootu leen gëm seenu mission taxaw na seen borom fàtt na leen nee na jaahum nasruna booba la sunu ndimbal agsi boobal suñu ndimbal daal di wàcc ñu muccal ña ñu soob yàlla nee na mbirum dogalub yàlla bu ñëwee ci aw nitu kàccoor dara mënatu koo fere ne wala yaraddu ba'suna anil qawmil mujrimin borom bi wax ni fa inna ma al usri yusra inna ma al usri yusra maanaam koo ku la naan man dama ba ma juddoo ba léegi ci naqar rek laa nekk ci ay malheur rek laa nekk waxul dëgg ku naan la ba ma juddoo ba léegi ci ay bonheur rek laa nekk bànneex rek laa nekk waxul lu am aduna ñaari ñoo fi nekk wa tilkal ayyaamu nudaawiluhaa bayna naas la borom bi wax fan yi fan yi nga xam ne mooy bés yi ngeen di dund ne dama koy wëlbati di ko soppax di seen kaw tey day neex suba mu naqari kon fa inna ma al usri yusra xamal ne jafe-jafe ak yomb-yomb ñooy ànd inna ma al usri yusra bu jafee day yomb bu yombee day jafe kon jafe-jafe faaw amul naqar faw amul bànneex faw amul bis boo nekkee ci naqar na nga yëg ne da day jeex naqar lu koy jeexal mooy bànneex moo koy jeexal bis boo nekkee ci bànneex yëgal ne bànneex bi day jeex bànneex lu koy jeexal naqar moo koy jeexal kon ñaar yi dañuy alterner nit ki ci lay dund mais bànneexu faw amul naqaru faw amul bànneex ak naqar ñooy ànd di alterner ñoom ñaar bii bu ñëwee yëgal ne bee mi ngi ñëw bii bu ñëwee yëgal ne bee mi ngi ñëw moo tax boo nekkee ci bànneex mu mu neex lool bu naqar ñëwee fàttaliku ne newoon nga ci bànneex ba ba jéggi day boo nekkee ci euh, bànneex mu neex lool ah fàttalikul na ne woon nga ci naqar te naqarit mooy jeexal bànneex gi loolu sunu borom noonu la bindee mbir yi bu fekkoon ne àdduna bi am na ko fiy wàcc doo am tiis doo am naqar doo feebar doo am lu la métti doo am jafe-jafe bànneex rek ngay am kon yonent yàlla yi am ko kon dañuy ñëw woote kenn du leen weddi kenn du leen ñaawal kenn du leen moke kenn du leen suufeel kenn du leen dàq ñuy exile wala ñuy gàddaay kenn du leen rey déedéet su fekkoon ne am na ñu koy am ñooñu la parce que ñooy ñooy ñi gën ci ñi yàlla sàkk ñoo ñi ëppal nit ñi njëriñ doomu aadama yi doomu aadama lu mu am njëriñ njëriñ ci kaw suuf nekk bu yonent ci kaw suuf moo ëpp njëriñ keneen ku moom kon ñoon ñoo ëppal njëriñ doomu aadama yi ñooñu ëppal njëriñ doomu aadama yi bu fekkoon ni am na lu yàllay y teggil nit ñi lu spécial ñoom rek la koy jox loolu moo tax àdduna moom këru tiis ak naqar la bànneex ba faw àjjana la am naqar ba faw safara la am wal iyaazu billaah waaye àdduna gi moom ñaari ñoo fi alterné bu nekk day joué rôle bu jeexee beneen bi ñëw noonu la ko sunu borom di di defee loolu moo tax yonent bi alayhi salaatu wasalaam wax wax ju am solo ci xadiisu eh, ibni abbas mu ne waa waalam anna fi sabri ala ma takrahu xayran kasira nee na xamal ne nga muñ ci ay metit nga muñ ci ay coono ki jafe-jafe yiw wu rëy moo ci nekk muñ gi nga koy muñ jaamu yàlla la muñ gi nga koy muñ day wane ne yow jébbal nga sa bopp ndogalal yàlla nangu nga ne yàlla moo dogal mbir mi ci yow genewu la ak lu metti métti yaa ngi koy muñ parce que métit bi ngay muñ coono li waaye ci sa biir xol da nga def at taslimu li qadaa illaahi wa qadari da nga jébbal sa bopp li nga xam ne mooy li yàlla dogal ci yow mbir mi métti na kenn teguma ko yàllaa ko dogal sama kaw nangu naa ko yàlla fay la muñ gi waaye fay la nangu gi nga nangu dogal gi mu dogal ci yow nga xam ne weddi ndogal leneen la yow nga nangu dogal li loola borom bi dala koy fay mu teg ci mu ne wa anna nasra ma kii am ndimbal mooy ki muñ ki muñ day am ndimbal wa anna nasra ma as sabri yemu fa mu ne wa anna al faraja ma al karb xamal ni jafe-jafe su amee buntu euh, buntu dindi jafe-jafe bi mi ngi ñëw maanaam bunt mu ngi ubbeeku jafe-jafe day ubbi bunt wane ne mbir mi yàlla dafa laa bëgg a indil xéewal moo tax mu teg la jafe-jafe gi parce que jafe-jafe bu ko mooy mi ngi lay indil xéewal xéewal bi mooy lan mooy day indil dàq jafe mu teg ci mu ne wa anna ma'al usri yusra xamal ni li nga xam ni moom mooy jafe-jafe ak yomb-yomb ñooy ànd bis bu jafee day yomb xadis boobu al imam ahmad moo ko solo xadis la bu wér a cheikh ahmad shakir wéral na ko alxaafis ibnu xajar naka noo ne al cheikh al arnaut ak al cheikh al albani euh, ki wóolu yàlla digganteem ak yàlla da gën a dëgër day dëgërlu day dëgëral wàkkirloom ci yàlla parce que yàlla mënoo wàkkirlu ci moom te wóoluwoo ko waaye it day dëgëral sa ngëm parce que ki ngëmam dëgër ngëm gi dëgër gi moo koy poussé mu wóolu yàlla ki ngëmam woyof day ñàkk wóolu yàlla loolu moo tax sunu boroom dafa bëgg wax yi mu wax ak digg yi mu dige nga am ci confiance bañ cee dute bañ cee sikki sàkk ibnul qayim rahimahullah dafay wax ci zaadul maad mu ne fa man zanna billaahi annahu laa yansuru rasulahu képp ku yaakaar ni yàlla dina yónni ab yonantam te du ko dimbali wala yutimmu amra yàlla du matal diineem ji wala yu ayiduhu wa yu ayidu xisbahu du dimbali yonant booba ak mbooloo ma ànd ak moom wa yuliihim du leen féetale kaw wa yuzfiruhum bi aadaihi du leen notal seeni noon wa yuzhiruhum alayhim du leen may kàttan seen kaw wa annahu laa yansuru diinahu wa kitaabahu ku jàpp ne yàlla du dimbali diineem ji ak téereem bi faqad zanna billahi zanna saw nee na kooku ku ñaaw njort ci yàlla la ku ñaaw njort yàlla la mu ne wa nasabahu ila xilaafi ma yaliqu bi kamaalihi wa jalaalihi kooka mi ngi askanale yàlla lu yellul ci yàlla wa sifaatihi wa nuutihi lu dàqoonteeg ay melokaanam fa inna xamdahu nee na sant yàlla wa izzatahu ak yëg kàttan yàlla wa xikmatahu ak yëg ne sunu borom boroomi xereñ la wa ilaahiyatahu ak nangu ne yow yàlla moom mooy ki nga war a jaamu nee na taba zalika dafa dàquwanteeg loola dafa safaanoog moom nee na wa sunu borom ni mu bindoo ci xereñam kàttanam xam-xamam ak mën-mënam ak nekk gi mu nekk boroomu jaam yi jaam yi war ko jaamu mu dig leen loola moom nee na taba an yuzilla xisbahu loolu dafa dàquwanteeg yàlla di seetaan ak di gàcceel mbooloo mi nga xam ne ñu ànd ak moom bu jundahu wa an takuna nusra al mustaqirra ba pare yàlla du di seetaan ndimbal li sax wa zufru daaim ak ngañaay li sax dàq li aadaihi al mushrikina bi ji ko jox ay noonam nee na mën na leen ñamal dara ci ndimbal mën na leen ñamal dara ci ngañaay ci kaw ay ci kaw ñi gëm yàlla ngir natt gum leen teg waaye ngañaay gi sax dàkk moom nee na yàlla du ko jox ay noonam nee na fa man zann bi dihi dalika ku yaakaar ku njort lii ci yàlla fa ma arafahu nee na kooko xamul yàlla wala arafa asmaahu wa sifaatahu wa kamaalahu xamul tur yàlla yi xamul melokaanu yàlla yi jàngu ko settantalu ko xamul cëru yàlla xamul cëru yàlla loolu moo tax boo jàngatee li nga xam ni mooy dëgg-dëgg lan mooy siqa billaa lan mooy wóolu yàlla dañ koy jiitalee wax ju am solo ju Saïd ibnu Jubayr daan wax al imaam Abu Nuaym génne ko ci xilyatul awliyaa nee na Saïd ibnu Jubayr mooy nettali mu ne damay dox ci mbeddu Bagdaad yi nee na laqi fa laqee ni rahib nee na ma dajeeg benn abbe chrétien fa qaala mu ne ma yaa said yow said fi l fitnati yatabayanu man yabudu llah mimman yabudu taaxut nee na fitna saa bu jollee ci la ñuy xam jaamukatu yàlla bi dëgg ci lañuy xam dëgg-dëgg jaamukatu xërëm bi lan mooy woolu yàlla kenn ci ulamaa salaf daf ko xamle ne hiya an waxda mooy nga jël sa xol wékku ko ci yàlla kese fi taxsili ma yanfauka nga jàpp ni lépp lu lay jëriñ ca la lay bàyyeekoo wa dafi maa yadurruka lépp lu lay aar ci lor ci yàlla lay bàyyeekoo wa an taqtaa taalluqaka bil maxluqin nga dagg sag wékku ci mbindaafoon yi nga xam ne ñoom dañoo war a wékku ci yàlla comme yow ni nga wékkoo ci yàlla mais waroo wékku ci ñoom parce que duñu ay wékkukaay fa hum laa na laka wala li anfusihim nafan wala darra ñoom mënaluñu seen bopp jox seen bopp njëriñ mënuñu tere seen bopp ak lor loola euh, mooy taarif bi nga xam ne Saïd ibn Musayyib moom la daan joxe ba tey al imaam Abu Nuaym génne ko ci xilya keneen ci ñoom mu ne asiqatu billah hiya al yaqin al thabit bi kamaali sifaatillahi taala mooy wóolu yàlla gu mat sëkk wóolu yàlla ni mu melalee boppam ci ay melokaanam wa bi sidqi waadi nga dëggal diggu yàlla yi mu diggee ci alquran fépp fu mu joxe dig nga gëm ne loola dëgg la doo ci sikki sàkk wa azimi qudratihi nga bàyyi xel màggaayu suñu boroom xam ne suñu boroom du ko ndaw wa ihaatati ilmihi bi kulli shay nga bàyyi xel ne suñu boroom dafa peeg ci xam-xamam ci lépp dara benn détail rëccu ko mais lii boo ko defee yow wóolu nga yàlla subhanahu wa taala keneen mu ne asiqatu billah hiya at taslimu wal inqiyaadu al mutlaq bil jawaarihi kulliha lillahi jalla wa ala moo nit ki jébbal jébbal léppam jébbal xolam jébbal ay cëram sunu borom subhaanahu wa taala du am dara du jël làmmiñam ne di wone ne ci làmmiñ wi dafa gëm yàlla yàlla la jébbal ay mbiram ci xolam jébbalul xolam yàlla mais day jébbal xol bi ak mboolem cëri jébbal ko yàlla lu ko dal mu jàpp ne sunu borom moo ko bëggee noonu yàllaa ko wàccee ci moom lu ko dalul it mu gëm ni waru ko woon dal keneen daal di wax ne asiqatu billah hiya an takuna awsaqa bi ma inda allahi minka mimma fi yadika aw fi yadi xayrika nee na da ngay gën a wóolu li nekk sa loxo nga yore ko yow gëm ne yaa ko moom dangay ngay gën a wóolu sa boroom que li nekk sa loxo li nga yoral sa bopp wala sa beneen mbir bu la sa beneen mbokku jullital bu jullit yorel nga xam ne leer na la kii sa mbokku jullit moo la ko yoral yow yaa ko moom waaye ma nga ca loxoom na nga wóoloo la nekk ca loxoom ne yow yaa ko moom dana dugg si ci sa loxo bu ko raw ngay wóoloo sa borom subhaanahu wa taala nee na boo ko defee yow wóolu nga yàlla shaqiq ibn abdillahi albalaxi mu ne rahimahullah mu ne asiqatu billah an la tasaa fi tamain nee na mooy say mbir yëpp doo ko teg ci intérêt doo ko teg ci ay calcul sa digganteek yàlla déedéet wala tatakallam fii tama sooy wax wax ji ngay wax nit ñi yàlla nga ciy seet wala tarju duuna si duuna si waa doo yaakaar ci dara lu dul yàlla say wax say jëf say dem say dikk lépp yàlla nga ci yaakaar wala taxaafu duuna si waa ragaloo lenn lu dul borom bi wala taxsha min sayin siwa amul lenn lu lay tiit loolu dul borom bi subhaanahu wa taala sa yaakaar ci yàlla nga ko wékk sa tiit ci yàlla nga ko wékk sa ragal ci yàlla nga ko wékk nee na booy dundee noonu nee na kooku mooy ki wóolu yàlla subhaanahu wa mbokk yi li nga xam ne mooy palaasu muy makaanatu siqatu eh, makaanatu siqati billah palaas bi nga xam ne wóolu yàlla moom la am ci diine mooy asiqatu billah muy wóolu yàlla borom dañuy wax ne min al ibadat al qalbiya wal usul al dafa bokk ci fondementaux wu munu ci ñàkk waaye jëf la joo xam ni xol xol moo ci ëpp solo xol moo koy gën a def ko yeneen cër yi du loo xam ni wóolu yàlla du looy taxaw di wax ci làmmiñ te fekk newul ci xol bi du looy taxaw di ko jéem a incarné di ko jéem a wone ci ay jëf alors que newul ci xol bi li am solo mooy na fekk ne ci xol bi la nekk ci xol bi lay bàyyeekoo ci xol bi lay jóge xol bi moo koy jëf parce que jëfu xol la dafa mel ni wàkkirlu wàkkirlu ci yàlla kooku du làmmiñ mooy wàkkirlu du bët mooy wàkkirlu walla loxo mais wàkkirlu ibaada qalbiya la jëfu xol la asiqatu billah mooy wóolu sa boroom wóolu sa boroom gëm ay waxam wóolu ko ci lim la wax dina la ci bindal tuyaaba nga gëm ko wóolu la lim la wax ne kii bu ku ko def dinañ ci dinañ ko ci bindal mbugal wala dinañ ko ci bindal bàkkaar nga gëm ko loolu jëfu xol la léegi li ëpp solo ci jaam bi digganteem ak boromam mooy xol bi rapportu xol bi xolu jaam bi digganteem ak boromam xol boobu nga xam ni Euh, moom mooy jaamu yàlla yépp mooy plaque tournante bi fa la ñuy déparé fa la ñuy bàyyeekoo jaamu yàlla yi baax dafay baax selon ni xol bi di wóoloo yàlla jaamu yàlla yi dul baax it lay tax du baax mooy xol bi nam mel digganteem ak boromam jamono bi muy joxe jaamu yàlla googa loolu bu fekkee nit ki xam na ko kon day bàyyi xel xolam boobu digganteem ak borom bi subhaanahu wa taala loolu moo tax borom bi ba muy wax ni wa ja'alna minhum a'immatan a'immatan yahduuna bi amrina lamma sabaru wa kaanu bi ayatina yuqinuun ibnul qayim mu ne samitu cheikh al islam ibnu taymiya rahimahullah mu ne dégg naa sama sëriñ cheikh al islam taymiya rahimahullah muy wax ni yaqul bis sabri wal yaqin tunaalul imaamatu fi diin mu ne dégg naa ibnu taymiya mu ne bis sabri muñ nit di muñ muñ jëfu xol la wal yaqiin nee na wóolu yàlla yaqiin jëfu xol la nee na ñaari tu tunaalul imaamatu fi diin kii am njiit ci diine kii am dayo ci diine kiy am place ci diine ci xolu jaam yi ak ci yàlla nee na mooy ki nga xam ni day doxe diineem day dundee ak diineem muñ ci li ko yàlla di nattu wóolu yàlla ci li ko yàlla di dikk nee na kooku mooy am place boobu nee na kooku mooy ki nga xam ni moom mooy am place boobu al imaamul harawi mu ne astiqa hiya sawaadu ayni tawakkuli mu ne tawakkul wàkkiirlu ci yàlla bu fekkee mooy bët bi sawaadul ayn ñuulaayu bët bi ñuulaayu bët bi ñuulaayu bët bi mooy yaqiin mooy asiqa bu fekkee bët bët xam nga bët mënul ñàkk lu ñuul dafa bokk ci ni yàlla bindee bët bu normal foog mu am lu ñuul bët bi dana weex mais foog mu am lu ñuul ci bët bi nee na ci yàlla wàkkirlu ci yàlla nim mel daa mel ni bët mais nee na ñuulaayu bët bi mooy asiqatu billah mooy jaam bi wóolu yàlla subhaanahu wa taala moo tax nit ki su wàkkirloo ci yàlla te wóoluwul yàlla day mel ni bët bu manqué lu ñuul day mel ni bët bu manqué lu ñuul bët boobu ku ko xool xam ne am na problème bët bu manqué lu ñuul ku ko xool xam ne bët bi am na problème loolu moo tax wàkkirlu giy dëgër dëgg-dëgg mooy wàkkirlu gi ànd ak asiqatu billahi subhaanahu wa taala asiqatu billah ci palaasam ci diine sifatun min sifatil anbiya jikko la bu yonent yi jikko loolu ku jàng alxuraan ku ne xam na ko yonent yi ñoo ñu gënoon a wóolu seen boroom ci li yàlla sàkk yonent yi ñoo gën a wóolu seen boroom ci li yàlla sàkk te bu ñu demee di joxe exemple pratique muy an namaazij at tatbiqiya fi alquran yi wa sunna dinañ ko gis beneen bi asiqatu billah dafa bokk ci li nga xam ne ci sifaatul awliya wa saadiqin ci la bokk ci melokaanu ñi gëm yàlla dëgg euh, ragal yàlla ragal yàlla gu kawe ci la bokk ci melokaanu ñuy dëggu ci diine ci la bokk loolu dinañ ci joxe ci misaal euh, Muaz Yaxya ibn Muaz ar-Razi bokk ci taabiin yi bokk ci borom xam-xamu xadiis yi nee na raximahullah nee na salaasu xisaalin min sifaati siddiqina wal awliyaa saalihin ñu ne ñetti melokaan yii te melokaanu ñi dëggu la melokaanu ñi féeteeg yàlla féeteeg yàlla gu wér mu ne asiqatu billah fi kulli shay mooy nga wóolu yàlla ci say mbir yëpp parce que am na kuy wóolu yàlla ci yenn mbir yi mais yenn mbir yi du ci wóolu yàlla leneen la ci gën a wóolu ko yàlla am na koo xam ne bu feebaree feebar gi muy feebar wóoluwu ci yàlla la la ci wóolu ab bu xaabakat la ci wóolu lan la ci wóolu mooy fajoo ci faju goo xam ne sax faju bokkaale la nga xam ni bunt la boo xam ni feebar bunt la boo xam ne nit ñi di nit ñi dañ ciy ñàkk a wóoloo yàlla moo taxoon Ibrahim waxoon ne wa iza maritu fa fii yashfini man su ma feebaree du ma ñëw ci seen xërëm bi mais sama borom bi moo may faj parce que nit ñi bëri waa na koo xam ni am na fu mu wóolu yàlla mais bu feebaree ñu def lu ne mbir yi sottiwul dootul wóolu yàlla léegi jàngoon na ni bul fajoo nàngam dafa xaraam jàngoon na ni bul takk nangam dafa xaraam mais fii wóolatu fi yàlla leneen la fi gën a wóolu ko yàlla dem jëfandikoo ko loolu ci musiba yi ñàkk wóolu yàlla ci la bokk moo tax mu ne asiqatu billah fi kulli shay da ngay wóolu yàlla ci lépp bul wóolu yàlla ci ay mbir ci ay buntu am ay buntu yoo xam ne wóolu nga ci yàlla am ay buntu yoo xam ne wóolu woo ci yàlla kooku tawakkul juz'i la siqa juz'iyya la maanaam wàkkirlu ci yàlla bu partiel la da nga rafet njoor ci yàlla mais du bu sincère du bu dëggu te yàlla bëggul loolu yàlla moom danga koy jox lépp wala nga bañ kaa jox dara loolu la udxulu fi silmi kaffa da ciy dugg ba jeex tàkk wala nga bañ a dugg beneen bi mu ne kon asiqatu billah fi kulli shay mooy da ngay wóolu yàlla ci lépp waaye war rujuu ilayhi fi kulli shay da ngay dellu ci yàlla ci lépp am na koo xam ni ci ay mbiram yenn bunt yi bu ñëwee mën na la wax nañ dellu ci yàlla waaye yenn yi du ci dellu ci yàlla soo koy waat loo mënoo fexe ba mu waat ci yàlla waat moom du ci dellu ci yàlla ci keneen lay dellu moo tax mu ne war rujuu ilayhi fi kulli shay da ngay dellu ci yàlla ci lépp wóolu yàlla ci lépp dellu yàlla ci lépp bépp mbir bu la ñëwal da nga koy delloo ci yàlla bul jël ay mbir yooyu tànn di ko delloo ci yàlla am yoo xam ne doo ko delloo ci yàlla kooku mooy tànn li la arrangé diina te loolu mooy jikko ahlul kitab afa tuminuuna bi baadil kitab wa takfuruuna bi baad gëm la li la arrangé nga gëm ko li la dérangé nga rejeté ko loolu jikkoy ahlul kitab la tànn li la arrangé li la dérangé nga sànni kooku jikkoy ahlul kitab la loolu jullit du ko doxee beneen bi mu ne euh, wal ghina bihi an kulli shay mooy nga doyloo yàlla ci say mbir yëpp nga doyloo yàlla ci say mbir yëpp yàlla ngay doyloo ci say mbir yëpp ñetti yi nee na boo ko defee nee na yaa ngi dëgg dëgg dëgg ci li nga xam ne mooy yoonu asiqatu billah te nee na ñetti yooyu ñoo yi nga xam ne ñoo koy matal ñaareel bi bokk na ci li tax nit ki wóolu yàlla mooy maarifatullahi azza wa jal bi rububiyatihi wa azamatihi mooy xam sunu borom bunt boobu nag bunt la bu nit ñi di réeralee ay doomu aadama mooy buntu xam yàlla xam yàlla buriwaane lu nit di wax ñu ne la xam yàlla moo ko ëpp solo lan moo tax mooy dafa am ci kuréelu lislaam yi ñuy tuddee al murjia muy kuréel goo xam ni ñoom duñ taral ci diine waaye dañoo woyofal diine yolomal ko yolam ba diine ji yolam ñoom bu ñuy ñëw ci la xamal lan mooy imaan muy gëm dañ naan la mujarrad maarifa qalbiya mooy xam yàlla ci sa xol kese doy na parce que li am solo mooy nga xam yàlla bis boo xasee ba xam yàlla yeneen yi amul solo yàlla dootu la mbugal sax ci bàkkaar boo def parce que yow dangaa xam yàlla léegi boo xamee yàlla kon léegi yow aarif billaa nga nekk nga koo xam ne xam nga yàlla te xamuñu ne li ñuy tuddee aarif billaa muy xam yàlla du tagg ci diine du tagg lan moo tax moo yàlla bindul lu ko xamut boo jëloon sànqale ñi jël yooy jël mbaam xuux yi jël gunóor yi mbóot yi ñépp xam nañ yàlla yàlla ne wa im min shay'in wa im min shay'in illa yusabbixu bi ci suratul isra amul dara looy jël lu dul day yàlla waaye lu tax ñuy sàbbaal yàlla xam gi xam yàlla borom bi mu ne sabbaha lillahi maa maa fi samawati wa maa fi l ard maa boobu di maa mawsuliya di min alfaazil umum mi ngi sàbbaal yàlla mbooleem sans exception mbooleem lu nekk ci asamaan mbooleem lu nekk ci suuf mi ngi sàbbaal yàlla waaw lu tax ñuy sàbbaal yàlla xam gi ñu xam yàlla moo tax ñu koy sàbbaal kon mala yi xam nañ yàlla kon ay mala yi boo leen jëlee ay aarif billaa lañ xam nañ yàlla iblis ci boppam iblis aarif billaa la seytaane aarif billaa la iblis xam na yàlla fa bi izzatika la daan waatee yàlla ci sa màggaay la daa sànk sa jaam yi kon iblis réerewul yàlla kon léegi nit ki bu jëlee objectif am bi gën a rëy objectif bi gën a rëy mooy xam yàlla léegi xam yàlla googu mu yaatal ko def jël ko def ko objectif ba yeneen yépp mu suufeel ko kooku ak cànkute la beneen bi réere yoon bi ñuy jaar pour xam yàlla léegi yàlla soo ko bëggee xam yàlla moo gën a xam boppam ñëpp wala am na ku gën a xam yàlla boppam yàlla gën a xam boppam ñëpp yàlla xam la ne boppam wala xamlewul boppam yàlla xam la ne boppam yàlla fan la xamlee boppam ci alxuraanam beneen bi soo bëggee xam yàlla dangay xool ki gën a xam yàlla jaami mu yonent yàlla bi aleyhi salaatu wasalaam amul ku ko gën a maîtriser yàlla léegi yonent boobu xam la ne yàlla fan la xam ne yàlla ci sunnaam léegi kon yàlla bàyyiwul ñun ñuy làmbatu ak di tatone kenn ku nekk toog mel ni yàlla waxul ni ñu koy xamee kenn ku nekk toog di xool moom naka lay xamee yàlla diinaan la man sama loxo laay xool xam ci yàlla kii naan la man poto bii laay xool xam ci yàlla kii na la man portable bi sax dama koy xool xam ci yàlla kii na la man ab oto rek bu ma ko xoolee dama ciy xam yàlla dëgg la yooyu ay aayaat la yoo xam ne yàlla moo may doomu aadama yi xel ñu mën ko amal boo ko xoolee gis yàlla kàttan gi mu def ci xelu doomu aadama ba mën a amal loola nga xam ni kii may xel doomu aadama ki ko may kàttan kàttanu xel xalaatu xel xel mu neex xel mu ñor ba mën a amal lii kooku tuutiwul daf lay dolli yaqin ci sa borom mais nekkul mooy buntu principal bi ñuy xamee borom bi subhaanahu wa taala buntu principal bi ñuy xamee yàlla mooy fi yàlla xamlee boppam te mooy alxuraanam beneen bunt bi mooy fi mu ki mu xamal mu xamle ko te kooku gën kaa xam ñëpp mooy yonent bi alayhi salaatu wasalaam foofu boo fa ngay xam yàlla beneen bunt boo jël jàpp ne mooy raccourci bi gën a gaaw mooy yoon bi gën a gaaw pour xamal la yàlla dalay soril yàlla du la xamal yàlla te doo mës a xam yàlla jël yeneen buntu yu dul bunt bi ne dañ ciy jaar pour xam yàlla xool leen leen est que xam nañ yàlla ban façon xam lañ xam yàlla est-ce que bi yàlla xam leen boppam la wala ñoom bi ñu kereel seen bopp la soo ko xool da nga gis ne booba la loolu moo tax xam yàlla dëgg-dëgg xam dayoom xam màggaayam xam wàccuwaayam jox ko li mu yellool kooku bokk na ci liy tax nit ki am yaqiin ci boromam borom bi wax na ni wa maa qadarullaha xaqa qadrihi doomu aadama yi joxuñu yàlla dëgg dëgg méritam dayo bi ñu ko war a jox dëgg dëgg dëgg joxuñu ko ko suñ ko joxoon duñ jël ay jinne def leen moroomu yàlla duñ jël ay malaaka def leen moroomu yàlla duñ jël ay nit def leen moroomu yàlla duñ jël ay mala def leen moroomu yàlla duñ yaakaar lu leen di jëriñ leneen lu dul yàlla duñ yaakaar ni am na lu leen mën a dàqal lu leen mën a fegal lor lu dul seen borom subhaanahu wa taala loola ñàkk xam seen borom moo leen ko yóbbee ñàkk a xam seen borom moo tax ñuy yaakaar yi bunti wërsëg ci keneen ku dul moom di yaakaar ak aafiya ak wér-gi-yaram ci keneen ku dul borom bi di yaakaar ay njëriñ yoo xam ne yàlla rek ko mën a joxe di ko yaakaar ci leneen dul yàlla loolu ñàkk xam yàlla moo tax jaam yi di ko def mais sunu borom dañ koy xamee ci li ñu tuddi al ayatu shar'iyya muy alquran ak waxu yonent bi léegi al ayatul kawniya muy li nga xam ne mooy preuve scientifique preuve naturelle yi mu fi def yow dañ ciy basé wu pour mu dolli ñu yaqiin dañuy dolli yaqiin ku xool booy jàng téere tawxiid yi gis ne boroom xam-xam yi saa bu ñuy wax ci borom bi subhaanahu wa taala xamle ko dañu yàlla moo bind asamaan moo bind suuf moo sàkk jant bi moo sàkk weer wi loolu du hasard ñu bëri dañ koy rek dañ ciy jaar jàll jàpp ne borom xam dañ ko wax nii rek mu nekk misaal ba dama ci kitaabu tawxiid bu ibni manda dangay gis ne loola maqsuud la shay maqsuud la maanaam lu ñu jublu la mooy lan mooy sunu borom dafay dafay def lu màgg parce que doomu aadama du mës a dox ba sàkk asamaan technologie ak science duñ mës a dox dox ba nit sàkk asamaanu boppam mënul nekk du mës a dox dox dox ba nit créé suuf mënul nekk beneen bi doomu aadama lu mu defar génnul diggante asamaan ak suuf beneen bi mooy doomu aadama buy dox ci kaw suuf ànd xelam ràññee normal bu daan la xawma asamaan amul koy laaj la asamaan mu ne la xawma asamaan kooku amut koy laaj suuf mu ne la xawma suuf kooku amul koy laaj asamaan mu ne la gisum musuma gis asamaan day fekk ne silmaxa la xanaa waaye ku yor ay bëtam mu ne la gisuma asamaan amul wala gisuma suuf amul nit làkk bu mu mënti dégg moo xam anglais la wala chinois wala espagnol wala créole wala soninke xam na lan mooy asamaan ci làkkam xam na lan mooy suuf ci làkkam kon dafa dafa nekk loo xam ne on shay'un zahir shay'un ma'ruf malmuus waaye kenn mënul wet ji ak amam lu feeñ la lu ñëpp di teg seen bët la lu ñëpp xam la lu ñëpp mën a gis la waaye gisuñu ci kaw suuf gisuñu ci monde bi ñuy dund ci alam bi ci univers bi créature maxluuq mbindaa foon bu gën a rëy asamaan wala bu gën a rëy suuf yow mbindaafoon boo gis lu mu rëy rëy rëy asamaan ko tiim mbindaafoon boo gis lu mu rëy rëy rëy ci kaw suuf lay dox te feesalul suuf si waaw kooku wonewul lu mu mën loolu doy na sëkk ci màndarga ci aaya kawniya pour wane ne sunu borom lii doy na yaqiin dolli nit ki yaqiin pour mu gën a wóoru boromam waaye moo xam ne sunu borom ku màgg la du ko ndaw yellul ñu koy wutal moroom wala maas walla ndend wala ngay yàq ñàkk am ak wóolu ak kóolute jëmale ci sa borom subhanahu wa ki fi def lii dafa mérito ñu daal di koy wóolu doy na rek nga wóolu sa borom ne moo la sàkk sàkk gim la sàkk nga doon doomu aadama màndarga bu doy sëkk la pour yow nga wóolu sa borom waaw comme sa borom moo la sàkk amal la kooku rek doy na yow jaam bi nga wóolu sa borom loolu doy na pour nga wóolu ko firnde la preuve la pour nga wóolu ko parce que moo la amal loolu moo tax. Euh, xam suñu boroom subhaanahu wa taala euh, shaqiq ibn daana wax ni man araada an yacrifa macrifatahu billah falyanzur ila ma wacdahu llahu wa wacdahu nnaas bi ayhima qalbuhu awsaq ñu ne ko bëgg a xam ni dëgg-dëgg moom ràññee na ñor na fer na ci xàmmee yàlla am na maturité ci xam yàlla na xool bu ko yàlla diggee nit ñi dig ko yàlla dalaa dig nit ñi digg la na xool bu fekkee li nit ñi dig la gën a gëm que li ko yàlla dig bu fekkee li ko yàlla dig la gën a gëm kooku ràññee na digganteem ak boromam ci xam boromam ak wóolu ko ñor na mais bu fekkee li ko yàlla di dig ak li ko nit ñi di dig digu nit ñi la gën a am confiance ci li ko yàlla dig nee na kooku am na problème ci xam boromam am na problème ci wóolu boromam subhaanahu wa taala nit ñi xoolal ñu bëree bëri diggante kenn ku nekk na xool li nit ñi di ak li la yàlla di dig ban beneen bi xam sunu boroom ci ay turam ak ay melokaanam yàlla moo wax ne man nii laa mel kenn waxalu ko ko mu ne yonent bi waxal jaami nii laa mel yàlla moo wax yonent bi nii laa mel lii ci samay melokaan la lii samay tur la man nii laa tuddee sama bopp man maa tuddee nii sama bopp kenn tuddee moo ko maa ko tuddee sama bopp wax yonent bi alayhi salaatu wasalaam waxal jaami lañ ma tuddee nii man maa bëgg ñu tuddee ma nii yii samay tur la kon yàlla moo tuddee boppam nu ko neex mu melal boppam nu ko neex mu melal boppam nu ko neex leneen lu dul yàlla dañ laa wutal tur jox la ko leneen lu dul yàlla ni nga mel melaloo ko sa bopp mais yàlla ni mu mel moo ko melal boppam ni mu tudd tur yi moo ko jox boppam kenn joxu ko ko loolu moo tax kon dafay nekk danger nit ki di wut aw tur di ko jox yàlla yàlla du ku ñuy wutal tur du ku ñuy tudd yàlla moo wutal boppam ay tur yow li nga moom wala li nga xam ne am nga ci sañ-sañ sañ nga kaa wutal tur bu la neexee sa kër nga tuddee ko aw tur sa portable sax bu la neexee nga wutal ko tur sa bu la neexee nga jox ko tur sa bu la neexee nga wutal ko tur sa doom bu la neexee nga wutal ko tur yi nga moom mën nga leen wutal tur mais yàlla moomoo ko ba koy wutal tur yàlla da ku ñuy wutal tur lii ci turu yàlla la boo ko tuddee yàlla te yàlla tuddeewu ko boppam mooy yaa ngi bëgg am sañ-sañu wutal yàlla tur te li ngay wutal tur da nga war a maîtriser da nga war a moom xa léegi yow maîtriser woo yàlla moo yàlla amoo ci moom sañ-sañ ni nga ñàkkee ci moom sañ-sañ noonu nga ñàkkee ci moom sañ-sañu jox ko tur kon yàlla waroo ko wutal aw tur parce que amoo sañ-sañ bi amoo sañ-sañ bi li nga sañ a jox tur mooy li nga moom wala déet loolu mooy li xel nangu li nga moom sañ kaa jox tur kenn du la ko tere boo li nga moom boo ko joxee aw tur kenn du ñëw ne la lu tax nga jox ko tur parce que yaa ko moom waaye li nga moomut amoo sañ-sañ gi te yàlla nag jaam bi moomu ko moo tax danger wu di jox yàlla tur bu mu moomul wala danger wu di toog di calculer génnee aw tur jox ko yàlla mooy yaa ngi sàkkal sa bopp yaa ngi fàqal sa bopp sañ-sañu jox tur yàlla te dara boo koy jox sañ-sañ rek boo koy jox tur rek yaa ngi bëgg am sañ-sañu ne yaa ko moom am nga ci am nga ci benn milkiya benn moomeel te yàlla amul ak moomeel goo am ci moom la min qarib wala min baid loolu moo tax yàlla moo ne nii laa tudd ñu ne ko d'accord suñu borom nii nga tudd yàlla moo ne nii laa mel dañ naan ko naam samina wa atana yàlla nii nga mel jeex na kon xam yàlla xam turu yàlla yi ak melokaanu yàlla yi kooku bokk na ci liy dolli nit ki yaqiin lan moo tax boo xamee ne yàlla xam na lépp yàlla mën na lépp yàlla sañ na lépp loola nga xam ko bokk na ci turam yi mooy alim alim mooy ci xam lépp xam ngoo xam ne amul fu mu tàmbale amul fu mu jeexee keneen ku dul yàlla sa xam-xam am na fu mu tàmbalee te day jeex bés day ñëw mu jeex mais suñu borom sifatu alim googu muy aji xamam xam-xam la boo xam ne amul fu mu tàmbalee amul fu mu jeexee waaye xam-xam la boo xam ne amul limite yow boo xamee da ngay xam ci mathématique doo xam dara ci histoire ak géographie wala déet wala nga xam ci domaine bii domaine bële doo ci xam dara xam ci domaine mécanique waaye domaine menuiserie xamoo ci dara xam nga ci wàllu tailleur mais wàllu commerce xamoo ci dara kon xam nga mais sa xam-xam dafa limité mais suñu borom xam-xamam limité wul du ci espace espace limité wu ko du ci domaine amul domaine bu ko limité keneen ku dul suñu borom sa xam-xam dafa limité wu ci espace limité wu ci domaine waaye suñu borom xam-xamam espace limité ko domaine limité wu ko lépp la xam alimun bi kulli shay lépp la xam loolu kon nit ki turu yàlla yooyu mu koy xam ak melokaanu yàlla yooya. xam li muy tekki xam li mu làmbool li mu wund li ne ci biir daf koy dolli yaqiin ci borom bi mais fekk day xam yàlla fi mu war a xamee turu yàlla yi ak fi mu war a xamee melokaanu yàlla yi soo ko bàyyi dem xam yeneen tur ak yeneen mbir yoo xam ne yaa ko wutal sa bopp su boobaa euh, du la jural benn njëriñ beneen bi loolu moo tax euh, Ibnul Qayyim nee na wax ju am solo ba tey ci Zaadul Maad mu ne aksaru nnaas yazunnuuna billahi gayra alxaqi zanna sawi fi ma yaxtas bihim wa fi ma yafaluhu bi gayrihim wala yaslamu min zalika illa man arafa allah wa arafa asmaahu wa sifaatahu wa arafa muujiba xamdihi wa xikmatihi nee na ñu ëpp ci nit ñi dañuy ñaaw njort jëmale ci seen boroom rafetu njort jëmale ci seen borom ñaaw njort gu bon lañu am seen diggante ak seen borom li aju ci seeni mbiri bopp ak li aju ci mbir yi nga xam ne seen boroom moo leen ko war a defal na nee na loola mucc ci mucc ci lu dul koo xam ni mucc ci lu koo xam ni xam na yàlla dëggi-dëggi xam ko xam turu yàlla yi xam melokaanu yàlla yi xam melokaanu yàlla yi turu yàlla yi lañ làmbool yonent bi aleyhi salaatu wasalaam ci xadiisu waasilata ibnu asqa radiallahu anhu mu ne samitu rasulallahi salaa sallam yaqul an illahi azza qudsi ana inda zanni abdi bi falyazunna biya ma shaa si boobu alimaam ahmad solo na ko ba tey cheikhul albani wéral ko nee na ana inda zanni abdi bi sama jaam bi nu ma jàppee noonu laay mel ci moom nu ma yaakaaree rek noonu laa mel ci moom loolu lu xaw a yomb la lu xaw a compliqué lu xóot a dégg la mooy kenn ku nekk na xool digganteem ak yàlla mu wax ni ban njort la am ci boromam moment bi mu toog ban njort la am ci boromam ndax njortam rafet na ci boromam wala njort li dafa ànd ak ay réserve wala njort la loo xam ni njort lu jeex tàkk ci diggante ak boromam la am yaqiin gu wér ni mu'min xaqan la ku gëm yàlla dëgg la am yaqiin ne moom boromam da koy yërëm am yaqiin ne boromam da koy dugal àjjana am yaqiin na borom da koy jéggal bàkkaaram wala ba tey mi ngi déngi déngi ci gëm yàlla gim gëm yàlla mi ngi déngi déngi ci ne man yàlla dina ma dugal àjjana wala dugal dugal àjjana mi ngi déngi déngi naan yàlla dina ma jéggal samay bàkkaar wala du ma jéggal bu fekkee nit ki position boobu la am bu yóbbu mu corrigé ko sunu borom doo ñaaw njortu ci moom njort li du am réserve da koy jox njort li ba mu jeex tàkk rafet njort lu jeex tàkk sa diggante sa borom moo tax mu ne mu ne ana inda zanni abdi bii sama jaam bi nu ma yaakaaree noonu laa mel ci moom waaw loolu xanaa ko ko wax ubbi na la buntu nga rafet njort ci moom noo yaakaar noo ko jàppee noo amee njort ci moom noonu lay mel ci yow waaw amel njort na sa borom damay jéggal samay bàkkaar bilaa shakk daf may dugal àjjana bilaa shakk daf may teggil lépp loo xam ne mbonte gu ma defoon la mu ëf ko jéggal ma ko bilaa shakk suñu borom daf may boole fa muy dugal jaamam yim yërëm ci yërmandeem la may dugal kooku nag na na ci nit ki am yaqiin bañ cee dute bañ cee sikki sàkk parce que ana inda zanni abdi bi bu yemoon foofu rek doy na mais xoolal lim ci teg nee na fal yazunna macha nee na la ubbil na la bunt nee na la njortal njortal lu la soob xanaa kooku ubbil na la bunt njortal lu la sob léegi lan moo la téye lan moo la téye pour nga njort li la soob nga njortu njort li rafet sa diggante ak sa borom amatoo ci lay amatoo ci benn lay wala dara lay justifier parce que nee na fal yazunna bi ma shaa na njortu lu ko soob waaw comme nee na la njortal lu la sob te yow amoo lu la téye ngëm yàlla gu dëgër gaa ngi fi kooku dalaa war a motiver nga gën saa boo xëyee sa njort yàlla di gën a rafet sa njort yàlla di gën a dëgër ah sa xol ci yàlla di gën a féex parce que waxu sayyidil anam la yonent bi alayhi salaatu salaam moo ko nettali jëli ko ci boromam muy xadis qudsi ana inda zanni abdi bi falyazunna biya ma shaa cheikh ibnu usaymin mi sharh bi dane xaasa xadisun azim dane xadis bi xadis bu rëy ba yanbagi taalimuhu wa bu ñu war a jàngale la bu ñu war a sol ci xolu jullit ñi la noonu que xadis bu rëy la bu màgg la bokk na ci ñetteel bi ginnaaw xam yàlla subhaanahu wa taala xam ko ci ay ay turam ak ay melokaanam mooy jub nekk ci al istiqaama ala taatillah mooy jub ci topp sunu borom subhaanahu wa taala imaamul xasan al basri nee na inna al mumina axsana zanna bi fa amal wax ju am solo wa inna al faajira asaa al zanna bi rabbihi fa asaa al amala jooju mi ngi ci xilyatul awliya naka noonu al imaamul bayhaqi génne ko ci shuabul iman xasanul basri nee na inna al mumina axsana zanna bi rabbihi nee na gis nga julit bi di différence digganteem ak kàccoor beeg naafiq bi ne moom dafa rafet njort digganteem ak boromam fa ahsanal amal moo tax muy jëf-jëf yu baax jàpp ne jëf yu baax yàlla da ko ciy fay day dem àjjana sikki saaka wu ci na wa inna al fajira asaa zanna bi rabbi nee na kàccoor beeg naafiq bi dafa ñaaw njort gëmul ne yàlla dina ko fay tuyaaba gëmul ne dina ko fay lu baax nee na fa asaal amala ñàkk gëm gim gëm tuyaaba yi ak jëf ju baax ji yàlla dina ko ko fay moo tax mu dem di jëf-jëf lu bon alimaam alxasan albasri jàll waxaat mu ne inna qawman alhathum amaaniyul maxfira xatta xaraju min addunia bi xayri tawba mu ne am na ci nit ñi ñoo xam ni maanaam wékku ak yaakaar njéggalal yàlla maanaam ñoom dañoo rafet njort mais rafet njort gi dafa baaxut ak rafet njort gu ëpp la lépp lu la yàlla sant bu ci ëppal dañoo rafet njort ba ëppal ci rafet njort gi mu ne alhathum amaniyul maghfira dañoo topp naan suñu borom ku bëri yërmande la comme ni ko sénégalais yi waxee yàlla dafa bëri yërmande yàlla soxorul yàlla iñaanul dëgg la yàllaa ko waxal boppam ghafiri zambi qaabili taw bi mais yemu fa shadidil iqaab alquran boo koy jël doo coupé li la neex kole leneen li nga bàyyi ngay jël lépp li yi def fa waylun lil musallin boo fa yemee baaxul mbugal nekkal na ñuy julli est que ñëpp la yan façon jullikat gaa nag di ci ëpp fooy lil musallin la ñuy def taxaw foofu kon dane am na ay nit ñoo xam ni naagu ci yërmande yàlla moo leen jàpp liñ nekk loo wax ñu ne lay suñu borom dafa bëri yërmande est-ce que loolu am na ku ñuy warante am na kuy warante ne suñu borom dafa bëri yërmande ah amul wax nañ dëgg loola yóbbee leen nee na ñu nekk ci lu leen neex loo wax ñu ne suñu borom dafa bëri yërmande nekk ci lu leen neex nekkuñu ci li neex yàlla de mais ci li leen neex ñoom nekk ci nekk ci jéggulu wuñ yàlla jàpp ne yàlla moom dina leen jéggal noonu nee na ba dajeeg suñu borom suñu borom mbugal leen mu ne xatta xaraju min ad-dunya bi xayri tawba ci loolu lañ nekk ba génn ci àdduna tuubuñu benn yoon loo wax rek ñu ne borom bëri na yermaane ba tuubuñu seeni bàkkaar dajeeg suñu borom suñu borom mbugal leen nee na yaqulu ahaduhum inni uxsinu zanna bi rabbi nee nag ñooña boo leen laajoon yéen lu tax ngeen nekk ci leen neex suñu waxee ngeen ne suñu borom dafa bëri yërmande suñu borom day jéggale nee na dañ naan la uhsinu zanna bi rabbi ñun dañoo rafet njort ci yàlla ñaawu njort ci moom dañoo jàpp na ñun yàlla dañuy jéggal nee na wa kazaba xasan mu ne koo ko waxul dëgg law ahsana zanna la ahsana al amal bu njortu li rafetoon mu doon lu dëgg ci moom jëf ji day rafet jëf ji day rafet munoo ne yow da ngaa rafet njort ci yàlla ba pare say say jëf rafetul yow da ngay nekk kay ci li neex yàlla jub ci ba pare ne da ngaa rafet njort ci yàlla loolu mooy wane ne rafet nga njort ci yàlla mais nekk ci li la neex ne da ngaa rafet njort ci yàlla déedéet loolu njumte la ñeenteel bi mooy al i'tizaazu bi diin wa tarkil mahaana wa tazallul mooy diine lislaam boo ci nekkee doo ci am complexe da nga ci am fierté da nga am fierté dund gi ngay dund diine am fierté topp gi ngay topp alxuraan ak sunna am fierté bokk gi nga bokk ci waa ahlu sunna am fierté topp gi ngay toog manhaju salafi saalih parce que mooy li gën mooy li yàlla nangu mooy li yàlla gërëm mooy leen yonent bi alayhi salaatu salaam tracé léegi ki nekk ci caaxaan bu fekkee caaxaan gi mu nekk complexe wu ci ki nekk ci dëgg warul complexe ci ak dëgg bal moo gën a yell mu am fierté ci li nga xam ne moom la nekk bég ci diine ki sunu borom dafa wax ni jullit ñi maanaam diine boo ci nekkee bul di découragé waaye bul nekk koo xam ni vraiment da ngay am complexe dootoo bëgg fësal sax sa ngëm dootoo bëgg wone sax sa imaan wax ni wala tahinu wala tahzanu wa antumul aalawna in kuntum muminin mooy charte bi bu leen suufeel seen bopp jullit warta suufeel boppam bu leen bu leen fonox bu leen nekk ñu faible bu leen nekk ci ay naqare ki tiis jullit ci lis bu nekkee ci diineem dafa war a ànd ak fierté parce que yéen yéen a féete kaw kenn féetewu leen kaw yéen féete kaw fii ak yéen ngi tënku ci ngëm gi nga xam ne moom laa wàccee ci yéen loolu al imaamul alusi al imaamul alusi boroom xam-xam bu mag la nekkoon ca iraq bind tafsir bu am solo tuddeexu ruuxul maani fi tafsir al quraan al karim téere bu am solo ci wàllu tafsir al imaamul alusi dafay wax ni aay boobu bi mu koy firi mu ne fala tahinu wala tahzanu ayyuhal mu'minuun fa inna al imaana yujibu quwwata al qalbi wa mazida siqati billahi taala wa adami almubaalaati bi aadaihi nee na yàlla li muy wax mooy bu leen faible bu leen nekk ci tiis ndaxte ngëm yàlla gu dëgër day waral ci nit ki xolam dëgër ngëm yàlla gi bu dëgëree xol bi day war a dëgër waaye da koy dolli confiance ba mazida siqati billah daf koy dolli confiance ci borom bi subhanahu wa taala ba du faale du am yëg benn yëg-yëg jëmale ci ku koy xeex wala ab noonam wóolu yàlla naka lay feeñee naka lay manifesté woo ak quelques exemple yuy wone yu alxuraan jàngale yuy wone ku wóolu yàlla nan la war a taxawe bi ci njëkk majaalaatu siqa wa mazaahiruhu mooy as siqatu fi kalaamillaahi wa kalaami rasuuli mbokk yi am na ñoo xam ni am na ay nit yoo xam ne jox nañ leen considération ba ñooñoo lu leen wax duñ ci sikki sàkk waa sunu boroom nag waxam dañ cee war a sikki sàkk am na ñoo xam ni am na ay nit foor nañ ci ñoom fooraay goo xam ne lu leen wax duñ ci sikki sàkk waa kooku lu mu foor foor yonent bee ko gën a foor kon waxu yonent bi bu fekkee yow kooka doo sikki sàkk ci waxam yàlla wax ngay sikki sàkk yonent bi wax ngay sikki sàkk yow sa ngëm am na problème wóolu woo waxu yàlla wóolu waxu yonent bi mais wóolu nga waxu keneen loolu jafe la yow ci sa ngëm am na xalal sa imaan am na problème am na jafe-jafe ci loo war a jubbantiwaat wóolu dëgg bu ñu koy def mooy waxu yàlla la ñuy wóolu wóolu dëgg bu koy def mooy waxu yonent bi la ñuy wóolu lan moo tax mooy waxu yàlla ala kulli xaal day am waxu yàlla du fanaan àll waxu yàlla amul njuumte waxu yàlla dëgg la yonent bi alayhi salaatu salaam li daje ci waxu yàlla moo daje ci waxam parce que yàllaa ko wax loo keneen ku dul waxu yàlla waxam mën naa ñàkk am mën naa ñàkk nekk dëgg waxam mën naa teggeeku waxu yàlla teggeeku waxam euh, mën naa dikk du dikkee nam ko yaakaar nam waxee woon yàlla nam waxee lay dikkee kon ki nga xam ne waxam dafa naan àll waxam dëgg la waxam du teggeeku waxam foog nga gis ko kooka dangaa war a am confiance bu raw fuuf ki nga xam ne am na martaba ci wala am na foo ko teg na ngay amee confiance ci waxam boo ko tolloolee sax baaxul dafa war a gën a for loolu moo tax bu njëkk bi kon mooy a asiqatu fi kalaamillaahi wa kalaami rasulihi mooy gëm yàlla ci li mu wax gëm yàlla ci ay waxam gëm yonent bi alayhi salaatu salaam ci ay waxam lan moo tax ñu war a gëm yàlla ci waxam borom bi dane wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla alimaamu tabari mu ne ay sidqan fil axbaar wa adlan fil ahkaam wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla yàlla dafa matal ay kàddoom nan la ko matale da matal ci dëgg matal ko ci tabar yi mu ne yàlla li mu bëgg a wax foofu mooy sidqan fil axbaar bépp xibaar bu la yàlla nettale ci alxuraan dëgg la wa adlan fil ahkaam bépp àtte bu ne ci alxuraan ci maandute la tege sidqan fil axbaar wa adlan fil ahkaam lépp nettali alxuraan dëgg la bépp attee alxuraan maandu kon foofu ni ngay gëmee waxu yàlla mooy nga gëm ne bépp histoire ci alxuraan dëgg la nga am ci yaqiin doo ci kisàkk waaye nga gëm ni bépp atte ci alxuraan ci maandu te la tege soo ko deful mooy siqa bi new fi mooy wóolootoo yàlla wóolootoo waxu yàlla wóolootoo waxu yonent bi aleyhi salaatu wasalaam mbokk yi ci misaal ci tatbiq ci wóolu yàlla dëkk mooy li yaayu Muusa aleyhi salaam def boo dégloo xissa bi xam ni yaayu Moussa bu amutoon siqa ci yàlla bu amutoon confiance ci yàlla li ko yàlla def la danaan mais lii moom def ko xaru la lii dama ko def borom bi mooy ñettali mu ne wa awxaynaa ila ummi Moussa an ardiihi ginnaaw bi nga xamee ne na njabarkat yi wax nañ ne ko xale bu góor dina juddu ci dëkk bi te moo nar a daaneel sa nguur ñu dem recensé ci dëkk bi yépp ci misra yépp képp koo xam ni jigéen ju tollu état ñu recensé sa kër xam yaay kan ko di boo wasinee lan ngay wasin di la topp di la topp ba xam wasin nga boo wasinee bu ñëwee bu nekkee góor yuzabbihuna abnaakum ñoo rey góor ñi jigéen ñi wa yastahyuna nisaakum ñu leen dundal dund goo xam ne dund gu gàccee la di leen toroxal kon góor ñi yuzabbihuna abnaakum dañ leen doon faat di leen rey yàlla def yaayu Muusa ci li ulama tafsir ni ñu ko waxee mooy ëmb bi feeñul ba doon lu ñuy marqué loolu di wane ne inna allaha ala kulli shay'in mooy aji mën lépp firawna ci loolu la mënoon a basé wu muy benn signe extérieur bu koy mu may mu mën a xam kan moo toll fu mu war a amee doom ak ku mënta am doom yàlla xam ne comme moom pexeem bi gën a rëy foofu la foofu rek la toll yàlla indi lu ëpp loolu mooy may jigéen bi toll état te biir bi nekkul lu ñu mën a marqué nekkul lu mën a seetlu looloo léeg-léeg loolu yàlla def ko waaye fii yàlla daf koo feddali def ko comme ni ko la maa tafsir waxee kon ñoom bàyyiwuñu xel yaay Moussa. jàpp ñu ne kii ci ñu war a am doom la marqué wuñ këram bàyyiwuñ ko xel topp ñu ko suivruñ ko benn agent wala benn renseignement topp ko mu nekk ci nekk ba jàmm ak salaam ba am doom kenn yëgutoon ne ëmb na bay naan war naa am doom koo yëgul ne ëmb na doo yëg ne am na doom kon bàyyiwuñ ko xel mais liir ci biir kër moom kenn mënu ko nëbb liir ci biir kër kenn mënu koo nëbb liir ci biir kër moom foog ñu xam ne liiram fi parce que jooy jeeg wee gi moom foog mu feeñ suñu borom bi mu xamee ne nag loolu moo des rôlu yaayu ma yaayu Moussa jeex na mu ne ko des jox ma ko jëlal xale bi nga nàmpal ko waaye ginnaaw nàmpal gi teg ko ci pañe loolu mooy bi nga xamee ne Moussa euh, dem na ba xaw a dëgër ya euh, ñu def lu nekk def lu nekk pour am ku ko nàmpal amul suñu borom ne yaay Moussa nàmpal ko te nga teg ko ci pañe gi nga bàyyi ma li des sama mission la maa koy àggale loolu moo tax mu ne wa awxayna ila ummi wax yu gi mu wax baatu waxyu la jëfandikoo mais wax yu bi ilham la parce que al waxyu taam kooku yonante lañ koy defal mais al waxyul juz'i ñu ko yenn borom xam-xam usulu diin di tuddee ñu koy tuddee ilham kooku ku dul yonante nit ku baax lañ koy def yàlla def na ko yaayu Maryam def na ko Maryam def na ko ki nga xam ne moom mooy yaayu Moussa alayhi salaam kooku ilham la. mooy du wax ak moom directement du yónni ci moom malaaka directement mais da koy sol loo xam ni irshad la lu jub loo xam ni nit ki day dem exécuter ko te du xam lu ko ko def loo da koy defar force mënu ko ñàkk def kooku mooy ilham moom la suñu borom def loo yaayu Moussa mu ne waxee naa ilaa ummi Moussa an ardihi nampal ko beneen bi fa isa xifti alayhi bu dee da ngaa tiit ci xale bi fa alqiihi na nga ko daal di sànni fil yammi waaw na ko sànni ci ndox mi def ko ci pañe def ko ci ndox mi tegal ko ci ay garanti la ko jox ne ko wala taxaafi wala taxsani bul tiit bul ragal lan moo tax inna radduhu ilayki wa jaa'iluhu min al mursalin dinañ ko delloo siwaat ba ci yow te dinañ ko yónni def ko yonant loolu boo amul yaqiin yaay Moussa bu amutoon yaqiin danaan waa kii naan ma naa jël xale bi def ko ci pañe sànni ko ci ndox mi waaye yemu fa nee na ma dinaa ko delloo siwaat ci yow fala taxaafi wala taxsani inna radduuhi ilayki wa jaa'iluhu min al mursalin dinañ ko delloosi ba ci yow duñ fa yem dañ koy def ab yonant dinañ ko delloosi ci yow mais duñ fa yem de dañ koy def ab yonant yaay Moussa boolewu ci wax nekk fi di calcul demul gis am jabarkat wala gisaanekat di ko laaj demul diisoo ak nit naan damay jël seen xalaat dafa xam ne lii lu bàyyeekoo ci borom bi la lu bàyyeekoo ci borom bi dañ koy exécuter mu dem exécuter li ko yàlla waxoon mujj na am wala amul am na yaay Moussa lan la am mooy asiqatu billah mooy wóolu yàlla dëgg wóolu yàlla dëgg am confiance totale ci yàlla moo ko def loolu moo tax jullit bi léeg lekk dangay ngay toll ci ay mbir ay situation yoo xam ne wallahi pexe mu rëy jàngat diisoo laajte du la ci génnee wóolu yàlla def moo la ciy génne wóolu yàlla gu mat sëkk gëm ni damaa woolu yàlla ci mbir mi jox naa lépp yàlla te gën ni ma wóoloo yàlla ci mbir mi ni ma gëmee noonu lay sottee noonu lay sottee nga gëm loolu yaqiin bañ cee dee ngi bàyyi yàlla sottal mbir yi boo ko defee yàlla sottal mbir yi jullit bi dafay aajowoo lekk lekk digganteem ak boromam muy def loolu dafay am solo bokk na ci <clears throat> euh, moo tax loolu misaal boobu déglul ibnul qayim da koy firi mu ne fa inna fi'laha haza ne yaayu ma Muusa jëfam ji mu jëf mu ne huwa aynu siqatiha billahi taala nee na mooy dëgg-dëggi wóolu goo xam ne ndaw si wóolu na ko suñu boroom subhanahu wa taala mu ne is lawla kamaalu siqatiha bi rabbiha nee na bu fekkutoon kamaalu siqatiha bi rabbiha wóolu gu mat sëkk gu wóolu boromam ne na lamma alqat bi waladiha wa filzata kabidiha fi tayyaaril ma nee na du jël li nga xam ne mooy reeni xolam doom benn ju am di ko sànni ci ndox mi muy dem nee du ko def tatalaabu bihi amwaajuhu ila xaysu yantaqi aw yaqif ba pare yàlla ko ne rek tegal ci tegal teg ko ci ndox mi mais waxu ko fan la jëm dane ko rek dinañ ko mës a delloo si def ko yonant waaye waxu ko fan la jëm ba pare ndox mi du ndoxum dex da ndoxum géej la nee na vague yi nekk ci ak yeneen rabu àll ak mala yi ne ci géej waaye yooyu yëpp wóolu na yàlla ba teg ko ci nee loolu mooy kamaalu siqatiha billah loolu mooy wane dëgg-dëgg wóolu gu ndaw si wóolu sunu borom subhanahu wa confiance bu mel noonu moom lañ bëgg jullit bi di ko doxee digganteem ak boromam subhanahu wa bokk na ci misaal yi <clears throat> mooy xadiisu abi saidin al muy xadiis bu bu bu bu màgg di xadis bu am solo euh, boo xam ni mi ngi ci mi ngi ci Buxaari Tirmisi génne na ko ak ñeneen xadis baa ngi saxi Buxaari Abu Saïd nee na jaa rajulun ila nabi sallallahu alayhi wa alihi am benn waay bu ñëw ci yonent bi fa qaala inna axi istatlaqa batnu mu ne ah, sama frère bi daal biir bi mooy metti ëfu ba sonal ko lool fa qaala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam isqihi bi alayhi salaam ne ko jox ko lem ji mu naan jox ko ci lem ji mu naan fa saqaahu waa ji jox fereeram ci lem ji mu naan ñu toog tuuti su ma jaahu fa qaal waa ji dikkaat ci yonent bi ne ko inni saqaytuhu asalan fa lam yazidhu illa istitlaqa joxat naa ko lem mu naan de mais biir baa ngi ëfu di gën a métti rek fa qaal lahu salaasa marrat yonent bi dik ne ko demal joxaat ko lem waa ji dikkaat waxaat yonent na ko demat ba muy ñetti yoon su ma jaahu rabia ci ñeenteelu yoon bi waa ji dikkaat bi mu ñëwee fa qaal waxaat même li mu waxoon yonent ne ko isqihi asala joxaat ko ci lem ji mu naan fa qaal laqad saqaytuhu mu ne yonent bi joxaat naa ko mu naan de fa lam yazidu illa istitlaqa mbir mi changé wul na meloon la mel fa qaala rasulullahi sallallahu alayhi wasallam sadaqa allahu ne ko yàlla wax na dëgg wa kadaba batnu axika sa biiru frère bi waxul dëgg daal di jël lem ji moom yonent bi fa saqaahu fa bari a yonent bi jox ko ci lem ji mu naan mu jox ko mu naan jox ko mu naan ci riwaayat dafa wax mu koy sol muy naan mu koy sol muy naan ba waa ji mànd ci lem ji yonent bi teg nee na waa ji toog mu ne ko nakamu mu ne ah biir baa ngi des mu ne ko nakamu mu ne ko métteetul loolu mooy yaqiin yonent bi moo ne ko jox ko lem waaw waxu yonent bi du fanaan àll amal yaqiin ne yonent bi wax ji mu wax ne jox ko lem waa am na lu tax da koy da kay faj du sikki saaka parce que yàlla moo waxoon ci alxuraan ni day génn ci biiru yamb yooyu loo xam ne day faj léegi yonent boobu toog ne la jox ko ci lam ji mu naan nga jox ko mu dikkaat mu ne la jox ko nga jox ko mu dikkaat waa ji bëgg wax ne wérul mënul nekk waxu yonent bi da nga ciy am yaqin yonent bi jëlee jox ko waa ji naan mu jox ko waa ji naan mu jox ko waa ji naan mu jox waaye dafa mujj jékki-jékki mu ne ko nakam mu ne ko ah biir baa ngi wàcc nakam mu ne ko métteetul kooku mooy am yaqin ci waxu yonent bi alayhi salaatu wasalaam loolu misaal la ci asiqatu billah fi kalaamillah wa siqatu fi kalaami rasul tayib beneen bi mooy xadiisu niyaar ibnu mukrim al aslami xadiis bu am solo la ci wone wóolu yàlla subhaanahu wa taala yàlla bi mu wàccee suratu ruum mu ne alif laam miim xulibati ruumu fi adna al ard wa min baadi xalabihim sa yaglibuun fi bidci sinin mu ne waa Ruum muy romain yi romain yi ñoom de xeex yi jàll persi dañ leen a gañe mais ay at yu néew a ngi ñëw ay at yu néew a ngi ñëw loo xam ne du mat fukki at bid'a sinin bid'a mooy salaasa min salaasa ila tisa ñeneen ñi ne min salaasa ila ashara kon balaa fukki at ci diggante bi aay bi wàcc ba balaa fukki at romain yi dinañ gañe perse yi léegi boroom xam-xam yi ne lan moo tax aaya boobu saar woowu aaya bi yàlla jël ko di ko nettali di ko nettali jullit nii parce que romains yi ahlul kitaab lañ perse yi ñoom ay yéeféer xaalis lañ du ñuy ahlul kitaab te sharia dafa maandu ahlul kitaab ñoo gën a jege jullit ñi ñi nga xam ne dañu ahlul kitaab moo tax mu daganal seen rendi daganal seen ñam te dagalu ko ci daganu ko ci kaafir xaalis tax amul taamu lazina utul kitaab xillul ko loolu maye ko ci ñeneen ñi may na ahlul kitaab bu rendee yàpp mën nga lekk maye ko ci ñeneen ñi kaafir xaalis mushrik xaalis loolu moo tax yàlla nettali leen ko wane ni ñii ñoo leen gën a jege yàlla jox na leen dimbal yaan ci seen bopp yàlla dina leen jox ndimbal ci kaw yéeféeru màkka yi ba sa ngi ñëw tayib bi aaya bi wàccee Abu Bakar dafa jàng aaya bi parce que suuratu Ruum makkiya la saar yu màkk la wàcc du ma dañi suur la saar la boo xam ni ci saar yi wàcc xablal hijra la bokk mu yi ñu tuddee makkiya Abu Bakar as-Siddiq radiyallahu anhu nee na dafa jaar ci mbedd màkk yi wa yasiixu bil aaya jël aaya bi di ko wax ci kaw di yuuxu di jàng aaya bi bi mu koy jàng qaala naasu min quraysh li abi bakar aw nit génn ci waa quraysh nadr ibnu alxaaris ikrima otbata ibnu rabi gaa yi génn nga xam ne ñooy ponkalu waa màkka yi eh, toppoon ci abu sufyaan ñu génn ne ko abu ne ko daal wax abu bakar ne ko fa dalika baynana wa baynakum ñu ne abu bakar waaw loolu suñu digganteeg yéen la de ñun gëmuñu li ngay jàng nii gëmuñu ko romain yi mënuñu gañe perse yi parce que jamono jooju force bi perse yi yor romain yoruñu ko jamono jooju romain dañoo yoroon seen jamono ba mu jeex bi ñu seen jamono ba mu jeex perse yi ñëw yor seen jamono perse yi yor seen jamono lislaam ñëw jeexal seen jamono moment boobu perse yi doole gi ñu yor romain yoruñu ko ci kaw suuf ci mbooloo ci dëkk yu ñu ci alal ci puissance militaire yéefari na ko li ngay wax nii moom ay reetaan la def lii gëmuñu ko xam nga lu ñu bëgg euh, zaama saahibu ko na ruum sa taxlibu faris fi bidi sinin kon sa waa ji moo la wax li yaakaar ni euh, li nga xam ne mooy romain yi dinañ gañe perse yi fii ak quelques années balaa fukki at afala nurahinuka ala zalika kaa ñu teg yow Aboubacar kaa ñu teg kaa ñu teg mais lii booba teg araama la ko parce que teg madina la araame bi yonent bi la araam bii booba teg araamagul yi teg ma teg comme ni gaa yi def ñu xool koy gañe nga teg xaalis mu teg xaalis mu perte nga yóbbu xam nga loolu dafa xaraam carte googu dafa xaraam gars yi ne Aboubacar kaa ñu teg Aboubacar ne lu ñuy teg ñu ne ko ñun mën nañ teg lu ñu am ci géttu gëléem yow nga teg loo am loolu amee euh, ñu ne ko afala nurahinu ko ala zalik qaala balaa mu ne aha kay nañ teg wa zalika qabla tahrimi rihaan loolu avant ñu araamal teg fartaxana Aboubacar wal mushrikuun wa tawaadaau rihaan Abubakar teg géttam ñoom ñu teg gétt léegi kam tajaalul bid'u ñu ne Abubakar ñaata ngay def uh, at yàlla wax xamuñu ñaata at la yow ñaata ngay nga koy jàppee Abubakar ne leen ah diggante ñett daal bu juróom-ñeent la ñu ne ko fa sammi baynaa wa baynaka wasatan tantahi ilay ñu ne ko foog nga tudd benn ab boo xam ne bu jeexee moom parce que ñun gëmuñu aay bi mais yow la ñuy bàyyi nga tudd loola neex tuddal fii ba nëf soo fi tuddee daal bu jotul ñun ñu jël bu jotee te gisuñu dara ñu ñu jël parce que xam nañu sax dara dara du feeñ nee na bi loolu amee qaala fa sammaw baynahum sitta sinin abubakar ak ñoom ñu dëppoo juróom benni at qaala fa madat as sittu sinin juróom benni at yi biñ matee juróom benni at yi mat qabla an yazharu dara matul dara amul ñu ne abubakar yow yaa woon juróom benni at de xeex dina am romain yi gañe perse yi juróom benni yi dee na de dara dara amul fa axasal mushrikuuna raxna abi bakr ñu jël la abu bakar tegoon boole ci di ko ree ak di ko ñaawal fa lama daxalati sanatu saabia bi ñu duggee ci septième année bi ah zaharat ar ruum ala faris xeex bi am romain yi gañ a perse yi fa aabal muslimuun ala abi bakr tasmiyata sitta sinin jullit ñi ñëw attaque abou bakar am ñeneen saxaaba yi ñëw attaque abou bakar ne lan moo la taxoon nga nga nga limité ko ci ci juróom benni at mu leen man ala kulli damaa gëmoon gañe gi parce que waxu yàlla la waaye nag comme bidaa ci làkku araab diggante ñett ba juróom-ñeent la xaw ma woon fan la gars yi nag da nga kaa waroon yóbbu ba juróom-ñeenti at mu ne liñ gañe yitteelu ma de mbir mi am moo ma yitteeloon te am na mbir mi am moo ma yitteel te loolu moo ma yitteeloon li anna allaha qaala fi bid'i sinin parce que yàlla dafa wax rek bid'i sinin bid'a ci làkku arab mooy diggante juróom ñetti at ba juróom-ñeenti at rek la yàlla wax xaw ma woon fan lay jeexe man ma wax juróom benni at waaye man mbir mi yàlla waxoon bar balaa juróom-ñeenti at yi mu am moo ma yitteeloon te am na nee na ba loolu amee wa aslama inda zalika adadun kathir xew-xew bi bi mu amee ci waa màkk ñu bëri dañoo mujj tuub ñu dañoo mujj tuub kooku mooy beneen misaal ci la nga xam ne moom mooy al yaqiin ci wala asiqatu asiqatu billah bokk na ci mooy xadiisu Aïcha radiyallahu anha qaalat lamma usriya binnabi sallallahu alayhi wa sallam ila al masjid al aqsa nee na bi nga xamee ne rañaan nañ yonent bi jëlee ko Màkka yóbbu ko Jérusalem jëlee ko Jérusalem yóbbu ko ci kaw asamaan loolu lépp ci benn guddi loolu lépp ci benn guddi te loolu lépp mën naa nekk sax ci une heure de wala ci benn minute suñu borom tëlewu ko waaye mu joxe fa leçon loolu lépp mu def ko ci benn guddi nee na asbaha yataxaddasu naasu bi zalik bi ñu xëyee mbir mi nekk benn rumeur nga nit ñi souvent dañoo bëgg di di di di di raconter ak di waxtaane ay rumeur kenn ku nekk mbir mi doo leerlu mais ku ñëw rek da ngay commenter te mbir balaa ngay commenter da war a leerlu mais nit ñi dañoo bëgg commentaire jamonoy commentaire la ñuy dund commentaire nag lu yàgg la xisatul xisatu bi al isra wal miraaj bi yonent bi ñibbisee dañoo xëy màkk yëpp nekk dëkk commentaire ñëpp di commentaire ñi war a commentaire di commentaire ñi warta commentaire di commentaire dëkk bi yépp xëy di commentaire bi loolu amee nee na fartadda naasun mi man kaana amana bihi wa saddaquhu déggal am na ay nit ñoo xam ni euh, seen yaqin dafa faible yenn yi bu amee au lieu que mu dolli leen dëgër laay ci diine daf leen ci delloo ginnaaw far xew bi bi mu amee am ci ñoo xam ne dañoo irtidaat far dañoo génn ci lislaam nekk weddi yonent bi alayhi salaatu salaam delluwaat ci baaxi maami waa Quraysh nee na fasaa rijaalun minal mushrikiin ila abi ay gaa yi dox ñëw ci abu bakar kilifa yi màkka yi dox ñëw ci abu bakar ne ko fa qaalu ñu ne ko hal laka ila saahibik waaw sa waa ji doo wax ak moom yazumu annahu usriya bihi leyla ila beytil maqdis moom nee na dafa yaa dafa dafa foog maanaam foog la nee na daal daa foog ni biig ci guddi jëlee nañ ko fi jële ko yóbbu ko Jérusalem jële ko yóbbu ko asamaan mu ñibbi si waat ci guddi gi xëy naa ñu dem na ci kaw sa waa ji loolu la foog sa waa ji wax la moom bi loolu amee fa qaala awa qaala zalika Abubakar yéegu ko woon parce que yenn riwaaya dañu dafa tukki woon di door a ñëw Abubakar yëgu ko mu ne leen awa qaala dëggal leerloo gi ak am solo moo ko wax awa qaala zalik moom yonent yàlla muhammad moo wax loolu qaalu naam ñu ne ko waaw qaala la in qaala zalika laqad sadaqa mu ne bu dee moo ko wax gis nga ba tey ak précaution yi muy jëflanteel parce que ñi ngay ñi ngay waxaat boo jàkkaarloowee ay nit di wax ak ñoom danga war a xam seen mentalité Abu Bakar loolu la jëfandikoo biñ ñëwee def biñ ñëwee wax ko jékki-jékki rek ne leen ah nangam la awa qaala zalika mooy premier parce que xam na ñi muy waxal ñooñu waa Màkka pour fenal yonent bi du dara ci ñoom mooy ndax moo ko wax ñu confirmer ne awa qaala zalika qaalu naam moo ko wax ñu ne waaw mu ne la in qaala zalika laqad sadaq su dee moo ko wax dëgg la waxul ne waxul jékki-jékkiwul ne leen dëgg la su dee moo ko wax dëgg la parce que xam na ñu waxal mu jël ay précaution ci terme yi muy utilisé la in qaala zalika laqad sadaqa su dee moo ko wax wax na dëgg euh, yemu fa Euh, qaalu ñu ne ko awa tusaddiqu annahu zahaba al-layla ila bayt al-maqdis wa jaa qabla an yusbih ñu ne ko yow mi kon dangay dëggal ne guddi gi dem na fi Jérusalem bayt al-maqdis ñibbi si fi ca fajar jotagul fa qaala naam mu ne waaw yemu fa de mu ne inni la usaddiquhu fi ma huwa abadu min zalika usaddiqu fi xabari sama fi xudwatin aw rawxa mu ne man maa ngi koy gëm dëggal ci lu gën a sori loolu ngoon gu suba gune mu ne ma am na xabaar bu ma dikkal ca asamaan lii la wax ci suba gi ci ngoon gi mu ne ma am na xabaar bu ma gontal ca asamaan ñëw lii la wax ma gëm ko ci man gëm naa ko ci lu gën a sori ci loolu nee na fa lizalika summiya aba bakrin as-siddiq loolu moo tax abu bakar ñu tuddee ko abu bakrin as-siddiq loolu moo tax tuddee ko as-siddiq as-siddiqiya dañuy wax ne martaba martaba la taati baada nubuwa benn makaana la bu am solo li koy maye mooy asiqatu billah mooy nit ko am confiance ci yàlla ci mbiram yépp da cee wóolu yàlla du ci sikki sàkka wóolu waxu yàlla wóolu waxu yonent bi wóolu alxuraan wóolu diine ji muy dund wóolu yàlla fii ci àdduna wóolu yàlla ca ëllëg kooku mooy ki nga xam ne mooy am martabatu as-siddiqiya yonent bi alayhi salaatu salaam tuddee na ko ki nga xam ne mooy euh, Abu Bakar waaye tudde na ko yaay Aïcha daan na wax Aïcha as siddiqa bintu siddiq wala borom xam ne Aïcha ci bokk na ci siddi siddiqatul umma yàlla mi wax ci surat nisa ulaika allazina an'ama allahu alayhim ma annabiyin nan la ñan la ci teg wa siddiqin wa shuhada siddiqin ñoo ñëw baada nabiyin moo tax ñu ne martaba taati ni ko alimaamu saadi waxee martabatun taati baada nubuwa martaba bu am solo la bu ak yonentu jàllee ci gëm yàlla ak wóolu yàlla ak yaqiin gu foor martaba boobu moo ci tege xeetu lislaam ñi ci nekk siddiq bari na mais ñi teg si ñëw ne kii mooy siddiq kii mooy siddiq bëriwul mais tekkiwul ne ñeneen ñi duñ ay siddiq wala xeet yu amul ay siddiq ah kay am na mais loolu yowmal xiyaam lañ koy xam siddiqoon yooyu suñu borom bu tegee yonent yi teg leen teg as shuhada teg as saalixoon kon siddiqa martaba la bu am solo Maryam ci la bokkoon comme ni ko borom bi waxee wa ummuhu kaanat siddiqa yaayu Isa nekkoo bokkoon na ci as siddiqa ci la bokkoon Mariam Siddiqa la ay imaamu Saadi baatu siddiqa boobu di yàlla di wax ci Mariam moom la jël tafsir ko di leeral lan mooy as lan mooy as siddiqiya mooy lan lan mooy martaba boobu lam ci wax mooy ku wóolu ku gëm yàlla ngëm yàlla gu dëgër wóolu yàlla ci léppi mbiram du ci dengi dengi léppi mbiram da koo wékk yàlla nee ne kooku mooy ki am as siddiqiya du sikki sàkk ci waxu yàlla du sikki sàkk ci waxu yonent bi alayhi salaatu wasalaam kooka bu ku ci nekk rek mën nañ laa tuddee as siddiq bokk na ci Eh, mel ni yi des temps bi du ko maye tayib bokk na ci ginnaaw wóolu yàlla waxu yàlla wóolu waxu yonent bi ak exemple yi ci joxe bokk na ci mooy wóolu ne jullit ñi ñu ngi ci ay tolof tolof ñu ngi dund ay jafe-jafe ñu ngi li ñu ngi dund ak nooy dañ leen ëpp doole dañ leen a not dañ leen a ëpp kàttan waaye loolu bu mu def ci sa xol mukk nga découragé ba tàyyi ba jàpp ne ndimbalal yàlla du ma sa ñëw déedéet asiqatu bi nasrillaahi wa tayidihi li diinihi mooy wóolu ak gëm yàlla gëm yàlla gu mat sëkk ne yàlla dina dimbali diineem mën naa ko fekkee mën naa ko bañ a fekkee mais waxu yàlla du teggee ko yàlla dina dimbali diineem loolu ba sa ngi ñëw lislaam ni mu ni ni nga ko notee ba sa ngi ñëw noonu lay notee lislaam mooy dogalaat ci kaw suuf loolu foog mu am balaa yomal xiyaam foog mu am kon jullit dafay gëm loolu loolu foog ñu bàyyi ko xel mooy yàlla léeg lekk dina nattu yonantam nattu waa diine ñu dund ay tolof tolof ngir ay bàkkaar yu ne ci ñoom ak gàtt ñu seen diine ñu noot leen noot boobu lu momentané la mu àqat la momentané la mais nag du sax tàkk bés day ñëw ak seen yaqiin wa ak seen yaqiin ak gën a delluwaat ci seen boroom sukkandikuwaat ci moom yàlla génne leen ci loolu loolu boo ko jàngatee rek danañ ci joxe ci misaal lu gàtt ndaxte waxtu waa ngi jeex dinañ joxe ci misaal lu gàtt mooy euh, Muusa alayhi salaam Muusa bi nga xamee ni sunu borom yónni na ko ci firawna mu ñëw nekk yonant màgg indi ay preuve am preuve yi nga xam ne ci jamonoy firawna mooy preuve yi gën a rëy yu mën a jaaxal nit ma leen a jommal mooy wàllug njabar Moussa not leen ci wàllug njabar ci yat bu ko yàlla jox bu ko sàndee mu doon yat euh, jaan bu ko téyee mu doon yat bu ko sàndee mu doon jaan ñoom ñi defar ay njabar njabar bëtu nit ñi ba nit ñi mel ni ñuy gis ay jaan Moussa sànni aw yatam yat bi doon jaan ngaa jaan yépp dugg mu ngepp lépp liñ sànni woon ci jaww ji ñuul ku ku jeex Moussa tey mu doon yat ñoom ñu xam ne si ñoom xam nañ njabar lii nekkatul njabar lii dafa supérieur njabar moo féete kaw njabar parce que ñoom fii ku fi xam njabar foog nga jàng ci ñoom te Moussa nekkul seen élève Moussa jàngewul ci ñoom te ñoom ku doon jàng njabar jamono yooyu ci ñoom ngay ñëw kuñ jàngalul mënoo doon njabarkat te jàngaluñ Moussa beneen bi ñoom xam nañ njabarkat xam na luy njabarkat lu dul njabarkat lii du njabar lii dafa raw njabar moo gën a foor njabar ñu nangu ñu nangu ñu nangoo Firawna dig leen dinaa leen rey rey goo xam ne dama leen ci daggate dinaa leen teg mbugal goo xam ne bi ngeen juddoo ba léegi mosu leen ko gis gaa yi préparé pour génn dëkk bi suñu borom jox Moussa ndigal ne génn dëkk bi rawale waa banu Israil Moussa yàlla moo ko ne génnal te yàlla moo ko tànnal direction bi muy jaar mais Moussa direction bi mu jël ndeke ca kanam géej moo fa nekk te géej moom du lu ñuy jéggee noonu jéggi ko du ay caaxaan Muusa am yaqiin ne suñ borom bi ma wax naa génn te naa jël yoon wi du ma seetaan mais ñu nekk ak Muusa commencé tiit commencé patiner lan lañu wax inna la mudrakun Muusa indi nga ñu problème bu rëy Firawna xam na ne yoon wi lañ jël te yoon wi géej a fi nekk te Firawna mi ngi ñëw ak armam topp ñu ci ginnaawam parce que Firawna nag ku raglu la moo tax gaa ñi ne inna la mudrakun loolu moo leen yóbbee ñu tiit mais déglul yaqiinu Muusa kalla kalla mukk inna maaya rabbi sa yéex yahdini man sama boroom laa àndal moo ma ne naa jaar fii sa yahdini foog mu indil ma foog mu génnee ma ci xat-xat gi foog mu teg ma ci njub teg ma ci yoon woo xam ne dinaa génn loolu yaqiin moo koy maye moo tax léeg-léeg boo jiitee aw nit jafe-jafe am ñoom ñu ñuy ñuy ñuy euh, euh, dengi dengi ak di ñàkk dëgër ak di nooy yow mi leen jiite boo nooyee rek musiba am nit ñi saa buñ nooyee dañoo aajowoo ku leen dëgëral dañoo aajowaat ku delloowaat seen yaqiin ci yàlla aajowaat ku dëgëral seen ngëm pour ñu mën a génn ci jafe parce que jafe-jafe yenn yi nooy du ci génne nit mais dëgër moo ci génne nit Moussa bu àndoon ak ñoom fekk leen ci loolu ne leen waaw Firawna jot mooy jafe-jafe bu am na seen diggante moo tax Moussa dëgër ne leen kallaa mukk inna ma'iya rabbi sayahdin sama borom laa nekkal te dina ma jubal mbir mi jëm jafe-jafe dinañu ci génne waaw kooku mooy asiqa mooy wóolu yàlla dëgg-dëgg moom la musaa def beneen bi mooy xadiisu anas asaru anas ibni malik radiallahu anhu anas nee na anna aba bakrin radiallahu anhu xaddasahu nee na abu bakr moo ma nettali parce que histoire boobu abu bakr ak yonent bi rek ko fekkee qaala nee na nazartu ila aqdaami almushrikin ala ruusina wa nahnu fi lgaar nee na bi ma gàddaay ànd ak yonent bi alayhi salatu salaam ñun ñaar ñu nekk ci xuntu wi ñu nekk ci biir pax mi ci biir xeer wi yéeféer yi taxaw ci kaw xeer wi taxaw fi ñu taxaw ñun ci suuf lañu nekk ci suufu xeer bi xeer bi pax mi ci lañ nekk ñun ci lañ dugg ne ci biir ñoom ñu taxaw ci kaw ñoom xeer bi ñu taxaw seen tànk yi bu ñu xoolan seeni tànk ci suuf rek nee na dañ ñuy gis anas nee na abubakar mu ne ma nee na law anna ahadum nazara ila aqdaami la naa kenn ci ñoom bu xooloon ci suuf yi tànkam rek dinañu gis tax dama qadamayhi nee na fa xaal nee na bi loolu amee yonent bi alayhi salaatu salaam laa ko wax anas nee na Abubakar daf maa wax ni biñ nekkee ci xunt mi yéeféer yi di ñu wër yéeg ci kaw xeer wi ma gis leen ñu taxaw dama na bi ñaa ñii de bu ñu xooloon seen suuf tànk rek dinañu gis te booba mbooloo mu bari lañ di wëru yonent bi alayhi salaatu wasalaam bari yëmuñu fa waa Màkka dañoo joxe prix dañoo joxe prix nekku ku jàpp yonent bi ak Abubakar indi leen ñu jox la dara ñëpp wërkat yi wërkat yi nga xam ne ñoom gëmuñu dara neexal bi rek moo leen tax a jóg ñëpp màmm dugg ci àll bi di wër nee bi ma waxee loolu déglu li ma yonent bi tontu nee na mu ne ma ya aba bakrin fa qaala ya aba bakr mu ne aba bakr maa zannuka bisnayni laahu thaalisuhuma waaw lan mooy sa njort loo yaakaar yow lan nga yaakaar ci ñaar ñoo xam ne yàlla la ñetteel ñaar ñu yàlla ñetteel te ci mission wu yàlla la ñuy dox yàlla moo leen sant dañu nekk lan nga yaakaar ci ñoom ñaar nee bi ma waxee loolu ma toog xaw ma lu xaw ma lu koy wax nee na jibril indil ko aaya bi nee na fa nazala fi zalika qawlullahi tabaraka wa taala illa tansuruhu faqad nasarahu llah kenn dimbaliwu ko de waaye yàllaa ko dimbali is axrajahu alladina kafaru bi nga xamee ne ñi weddi yàlla ñoo ko génnee mu yéeféeru màkka ya saani yasnayni is huma fi lgaar ñoom ñaar kese ñu nekk ca xeer wa is yaqulu li saahibi laa tahzan inna allaha maana muy wax ak àndandoom ba naan ko bul tiit bul jàq yàlla moo nekk ak ñun nee na bi bi loola amee fa anzala allahu sakinatahu alayhi yàlla wàccee ak dal ci moom dalal ko wa ayyadahu bi junudin lam tarawha dimbali ko ci ab armée boo xam ne gisu leen ko wa jaala kalimata alladina kafaru yàlla suufeel kàddu géeféer ya wa al ulya yàlla kaweel kàddu ña nga xam ni ñoom ñooy ña gëm yàlla lan moo tax mooy gàddaay boobu bu ko yonent bi réussir utoon mooy kàddu lislaam fay mais bu réussiree gàddaay gi mooy kàddum lislaam dana jóg kàddu gi yéefee dana suufee moo tax mu ne wallahu azizun hakim yàlla ku tedd la ku xarañ ku xam li muy def la loola bokk na ci li nga xam ne lenn la ci ay misaal ci jullit bi wóolu ne ndimbalal yàlla foog mu ñëw ci moom saa bu nekkee ci jafe-jafe ci wàllu diineem yàlla yàlla subhanahu wa taala dina ko ubbil li nga xam ne moom mooy buntu nas dana ko ubbil li nga xam ne moom mooy moom mooy buntu ndimbal loolu nit ki saa su ne war na koy bàyyi xel loolu moo tax kon warul koo waru koo jaaxal mukk ci diine menacer diine ak waa diine loolu dafay nekk ba ilaa yawmi diin waaye loolu warul dindi nit ki am yaqiin ci ne ah, ndimbalal yàlla dana ñëw parce que diine il faut am ñu taxaw di ko contre am ñu taxaw di ko saboté am ñu taxaw di ko xeex loolu mooy tax diine di fi mën a nekk di dem bu fekkoon ne loolu amul rek kon ni diine yi doxee su boobaa day am lu ci ñagas loolu moo tax boo jëlee yonent yàlla nuux alayhi salaam euh, bi nga xamee ni taxaw na di woote aw nitam woote bi soof leen déglu leen nuux wax dane in kaana kabura aleykum maqaami wa tazkiri bi ayatillah waaw sama moom nit bu fekkee taxaw bi may taxaw seen kanam di leen fàttali waxu yàlla gi daf leen a soof fa alallahi tawakkaltu parce que dañ koo menacé ba àgga foo xam ni no noonu la mënoon def mu ne leen man faaleetuma leen fa alallahi tawakkaltu ci yàlla laa wàkkirlu fa ajmiu amrakum daje leen ngeen def lu leen neex ci seen biir xoole lu leen neex def fa ajmiu amrakum daje leen seen mbir ngeen def wa shurakaakum ak yéen ak ku ngeen mënti àndal su ma laa yakun amrukum aleykum xumma summa qdu ilayya wala tunziroon te bu leen am dara lu ngeen di hésité pour def ma ko man wala lu ngeen jute wala lu ngeen di sikki sàkka bu leen mos warale def leen def leen lu leen soob man yàlla ci yàlla laa wàkkirlu kooka yaqiin la demee ci li nga xam ne moom mooy moom mooy ab wooteem moo jëlee yonent yàlla huud loolu defoon aw nitam jox gaa yi ne yow soo bàyyiwul sa woote bi dañ la fexeel daf leen wax ne fakiiduuni jamian summa laa tunziruun waaw def leen seen i pexe yu la neex bu leen ci xaar dara na yàkkamti na gaaw seen i pexe laa yàkkamti noonu la daal di daal di jëflante ak ñoom mu teg ci mu ne leen inni tawakkaltu ala allahi rabbi sama borom ci laa wàkkirlu mooy sama borom wa rabbikum di seen borom maa min dabbatin illa huwa axizum bi nasiyatiha amul lenn luy dox ci kaw suuf lu dul ne moo yor say mbir moo ko téye man ci moom laa jox moom laa moom laa wàkkirlu parce que moo téye samay mbir lu ngeen mën ci def bu ko dogalul ci man mu leen ko sottal ci man man moo ma yoon nii loolu bokk na ci li nga xam ne bi noonu la war a demee Euh, bokk na ci li ñu war a wóolu yàlla mooy asiqatu bi maiyatillah mooy julit bi yëg ne yàlla mi ngeeg moom saa su nekk dafa war a am dafa war a gëm loolu gëm ko wóolu loolu gëm ne yàlla mi ngeeg man saa su ne parce que borom bi dafa généraliser ne mi ngi nekk ñi gëm yàlla kon waxul ma sàmba ma demba ñi gëm yàlla kon boo jàppee ci ñi gëm yàlla nga bokk gëmal na yàlla mi ngi nekk ak yow saa su ne loola euh, mat nay bàyyi xel loolu li koy firndeel rek mooy xisatu ibrahima alayhi salaam ibni abbas nee na kaana axira qawli ibrahim xina ulqiya fi naar xasbiya allah wa ni'mal wakil yàlla doy na ma te ci moom laa wéeru nee na fa kafaahu llahu charra ma araadu bihi min kaydin yàlla daal di koy dàqal pexe yi bon yañ ko dañ ko denc doon wa xafisahu min an tusibahu naar ba muccee ci ñoom dem ci safara sa yàlla aaraat ko ci safara si ba tàngooru safara si eh, gaañul ki nga xam ne moom mooy ibrahim mooy wax jam wax ne qul naa yaa naaru kuuni bardan wa salaaman ala ibrahim kii soxna Hajar alayhi salaam doon jigéen ju gëm yàlla jëkkëram bàyyi ko di Ibrahim alayhi salaam ci àll boo xam ni àll boo xam ne amul lekk amul naan amul dëkkuwaay foo mën a dëkk sax amul fa ca Màkka ca jamono yooya amul dëkkuwaay ay montagne la ay xeer lekk ak naan amu fi Ibrahim daal di ko fay bàyyi moom ak doomam doom joo xam ne doom ji ndaw la Ibrahim dem di doxi digalal loo xam ne suñu borom moom moo ko ko digal ibni Hisham dafa indi ci siira mu ne bi Ibrahim di dem soxna daf ko wax ne fa xaalat daf ko wax ne ko Haajar dafa laaj Ibrahim ne ko yaa Ibrahim ayna tazhab wa tatrukuna bi haazal waadi waaye Ibrahim fan nga jëm indi ma ba ci xur wii amul fu ma mën a dëkk néeg bu ma mën a defar amu fi lekk ak naan amu fi nga bàyyi ma fi ba pare di dem fan nga jëm allazi laysa fihi insun wala shay amul benn nit bu ma fiy wéttali fa xaar lahu zalika miraaran ndaw si bi Ibrahim di takk ay bagaasam di dem ndaw si di répété loolu di ko wax wa jaal laa yaltafitu ilay li muy wax lépp Ibrahim gestu ko xoolu ko mi ngi takk ay bagaasam rek di préparé <clears throat> fa qaalat la allahu allazi amaraka bi haza mu ne ko waa Ibrahim est-ce que yàlla moo la digal nga dem bàyyi ma fi qaala naam Ibrahim ne ko yàlla ma digal naa dem bàyyi la fi fa qaalat idan laa yudayiuna maadaama yàlla ne moo la dem moo wax nga dem bàyyi ñu fi boo ñu fi bàyyee moom yàlla duñu sànq comme moo la wax bàyyi ñu fi gëm naa ne moo bu dee moo wax nag ñu fi bàyyi gëm naa ne duñu sànq parce que comme moo ne bàyyi leen fi te moo ñu indi ci bërëb bii duñu seetaan inna allaha laa yudayiuna xoolal googu yaqin ak googu siqa billah loolu mooy li nga xam ne mbokk yi moom lañ soxla dëgg-dëgg ci suñu dund beneen bi mooy asiqatu ma indallahi min sawaabin wa aqaab wa iqaab nga gëm li yàlla digge ci ay tuyaaba wóolu ci yàlla wóolu yàlla li mu dige ci ay ci ay mbugal tamit nga wóolu ci yàlla bu baax a baax loolu bokk na ci li nga xam ne lu mat a bàyyi xel la borom bi ci jihaadkat yi mu wax ci lu am solo ci suratu tawba mu ne zalika bi na annahum mu ne ñooñu di xeex ci yoonu yàlla nañ xam ne laa yusibuhum zama mar bi ñuy mar ci yoonu yàlla gi wala nasab coono gi ñuy gi leen di dal ci yoonu yàlla wala maxmasa xiif gi leen di dal ci yoonu yàlla fi sabilillah wala yata'uuna mawtian amul benn tànk bu ñuy teg yarisul kufaar goo xam ni dafay méccital yéeféer yi <clears throat> wala yanaaluuna min aduwin naylan amul dara lu leen di dal bàyyeekoo ci noon bi dal leen moo xam dóor gu ñu leen dóor la jaasi la wala flèche la wala fett la nee na illa kutiba bi bihi amalun saalih nee na loolu dinaa leen ci bindal loolu lépp mar gi mar gi leen di dal ci yoonu yàlla mar mi te amuñu ñu naan xiif gi amuñu luñ lekk coono gi leen ci dal ñu sonn ah nee na tànk yi ñuy dox ak campé yi ñuy campé ak lor yi leen di dal koo ci noonu jëm si ci ñoom nee na amul loolu le loolu lépp amu ci dara loo xam ne dina leen ci dal lu dul ne dinaa leen ci bindal loo xam ne jëf ju baax la illa kutiba lahum bihi amalun saalih mu ne inna allaha laa yudiyu ajral muhsinin yàlla du sànq mukk jëf joo xam ne jëf ju baax la nee na walaa yunfiquuna nafaqatan sagira wala kabira wala yaqta'uuna waadiyan ila kutiba lahum li yajziyahum allahu ahsana ma kaanu yaamaluun nee na luñ ca financé dërëm buñ ca def moo xam lu tuuti la wala lu bëri la du ñu jéggi wenn xur du ñu jéggi benn dëkk du ñu traversé benn zone lu dul ne dinaa leen ci bindal tuyaaba te <clears throat> tuyaaba ma leen di bindal li yajzihum ahsana ma kaanu yaamaluun dafay nekk pay goo xam ni moo gën lañ doon def suñu borom ci maanuteem mooy boo defee du la fay lu mel ni li nga def déedéet ahsana lay def dalay fay li gën du la fay lu mel ni nit mooy fay lu mel ni dangay jëf mu fay la lu mel ni li nga jëf mais yàlla du la fay lu mel ni li nga def li gën li nga def la lay fay ahsana ma kaanu yaamaluun kooku suñu borom rek moo ko mën loolu moo tax loolu bokk na ci li nga xam ne lu mat a bàyyi xel la euh, tey li ñu jeexalee rek mooy samaraat yi mooy meññeenti li nga xam ne moom mooy wóolu sunu borom subhaanahu wa taala ba ca njëkk mooy wóolu sunu borom xéewal la boo xam ni nit ki moo koy fàggu yàlla jox ko ko soo ko deful effort soo deful effort pour jéem ko dund jéem ko appliquer yàlla du la jox xéewal bi yow yaa koy chercher yaa koy wuti sunu borom jox la ko suñu suñu suñu borom bu la ko defalee nga wóolu yàlla wallaahi dund kaw suuf gii sa dund day neex da ngay noppalu sa dund day dal parce que da jàpp ne say mbir yëpp ci yàlla lay bàyyeekoo li jëriñ ci moom la li lay lor lay bàyyeekoo li la war a dal foog mu dal la lu la war a dal kenn mënul fexe ba mu dal la nga gëm ne it say mbir yàllaa koy sottal li war a sotti ci say mbir foog mu sotti li warta sotti ci say mbir kenn mënu ko sottal da ngay doo ñàkk dara di accuser nit doo am dara di gërëm nit jàpp na ci moom la bàyyeekoo même bu jaaree ci moom sabab la ci mais yàllaa ko dogaloon même bu jaaree ci moom ñëw ci yow sabab la ci moom mais yàlla ma waxoon foog mu ñëw yaqin googu bu ko nit ki amee day yëg ne mi ngi xéewal goo xam ni euh, ñi ko ñàkk day xam ne ñoom ñàkk nañ lu bëree bëri moom mi ko am day yëg ne mi ngay xéewal ñi ko ñàkk daf leen di yërëm koo kon atiqatu billahi ni'matun azima wa minhatun kabira may la guy bàyyeekoo ci yàlla bokk na ci ay résultat ay meññentam mooy taftaxu baaba rahmati wal amal day ubbi nit kii buntu yërmaande day tax borom bi mën ko yërëm waaye day am njort toujours day nekk koo xam ne toujours day am njort ci boromam du ñaaw njort mukk day rafet njort rek waaye day dàq ci moom faw asbaabal yasi wal kesal day dàq ci moom muy tàyyi ak di découragé digganteem ak boromam ak muy tàyyeel loolu bokk na ci bu baax a baax a baax li koy gën a wone mooy juróom ñaareelu juróom benneelu at jëm juróom ñaareelu at mën nañu wax rek juróom benneelu at bi muy xaswatul xandaq wala xaswatul ahzab muy la bataay des coalisés bi tax yàlla wàccee sotul ahzab juróom ñu yëg ne waa Màkka dañoo coalisé ak mbooleem ñi weddi yàlla ci kaw suuf ci jamono jooju ñëw pour songu Madina pour jeexal woote yonent bi aleyhi salaatu wasalaam mu doon lu tiis lu métti yonent bi toog di dajeeg saxaaba yi di waxtaan ak ñoom naka la ñuy def am ñee nañ génn dajeeg ñoom gaa ñi ne ah ñoom dañoo bëri ñoo ñu ëpp am ñu nañ leen xaar Madina nekk ci kaw garab yi def stratégie bu ñu duggee ñu leen di dóor ay flèche ak di def ay guerre guerre guerre de rue combat de rue euh, Salman al Farisi ne yonent bi alayhi salaam ñun xeex boobu am nañ ci expérience bi ñu nekkee Perse moo nit bu ñëwoon dina song suñu dëkk. ñun dañuy des ci dëkk bi duñ génn parce que attaqué ak nit ki xamuñu nu mu toll estirage mooy dañ des ci dëkk mais dëkk bi dañ koy wurale ay pax dañ koy gas ay kàmb kàmb yi day yaatu yaatuwaay boo xam ne fas yi du ko mën a tëb mbaam du ko mën a tëb giléem du ko mën a jéggi mais day xóot xóotaay boo xam ne it sew xóot xóotaay boo xam ni fas wi du mën a dugg yéegaat mbaam mi du mën a dugg yéegaat giléem gi du mën a dugg yéegaat stratégie boobu koo ko def bu ñëwee ba agsi ci yow day jaaxle parce que xamul nu muy def mënta tëb mënta mënta dugg génnaat yonent bi ak saxaaba yi nekk ci liggéey boobu ñuy wër di gas mais déglul wóolu yàlla gi ne ci ñoom ak confiance gi nga xam ni jaabir daf ko nettali nee na saxaaba yi lan lañ doon wax dañ ne wallahi lawla allahu mahtadayna ah yàlla bu toon ak yow de duñu am njub lii du njubal lislaam wala tasaddaqna wala sallayna duñu saraxe duñ joxe du duñ julli fa anzilan sakinatan alayna wàcceel ci ñun ak dal ndax situation bi nekk nii wa sabbitil aqdaam in laaqaynaa na nga dëgëral suñuy tànk bu ñu dajee gaa yi innal ula qad baxaw alayna ñoom dañoo beew ci suñu kaw ba jàpp ne war nañoo jeexal wa iza araadu fitnatan abayna waaye bis bu ñu bëggee fitnaal diine ji ñun dañuy taxaw bañ kàddu yi lañ wax moo tax jullit ñi loolu lañ ñaan ñoom ñaan nañ ne xeex bi am waaye na leen yàlla jox ngañaay biñ yégee ne gaa yi ñëw nañ ba wër madina déglu yàlla nettali ci suratul ahzab walamma ra al muminuuna al ahzab bi ñu gisee mbooloo mi tiituñu bi ñu gisee mbooloo mi jaaxle wuñu parce que ñoo ñaan na yàlla may ñu ngañaay bu ñu dajeeg ñoom kon foog xeex am parce que bu xeex amul duñ gañe kon il foo xeex am xeex pour mu am foog mbooloo mi ñëw nee na wala mara wala mara al muminuuna al ahzab bi nga xamee ne julit ña gis nañ mbooloo ma ñëw qaalu haza maa waadana allahu wa rasuluhu li ñu yàlla digga ngi nii ak yonent bi mooy ngañaay li wa sadaqa allahu wa rasuluhu yàlla ak yonentam wax nañ dëkk dinañ leen gañe wa ma zaadahum illa imaanan wa taslima dolli wu leen lu dul ngëm ak gën a jébbal seen bopp seen borom loolu mooy wóolu yàlla dëgg-dëgg loolu lañ def beneen bi mooy tuqimul abda fi maqaamil ihsaan mooy euh, daf lay day yëkkati jaam bi boole ko mu bokk ci jaam yi nga xam ne dañuy rafetal seenu jaamu yàlla sa jaamu yàlla mënta rafet mënta am mënoo am ak ihsaan te wóolu woo yàlla ci jaamu yàlla gi ngay jaamu yaa ngi julli sikki sàkk danaa ci am tuyaabaam déet yaa ngi woor di sikki sàkk dinaa ci am tuyaabaam déet yaa ngi saraxe di sikki sàkk dinaa jàng alxuraan mais naa jàng alxuraan bi rek mais bon est ce que am naa ci tuyaaba liñ naan boo jàngee alif am fukk laam am fukk miim am fukk muy 30 bon est ce que dëgg la jaamu yàlla googu comme yow yaa ngi ciy dute déjà yow ci sa bopp yaa posé problème bi du ci yàlla la bàyyeekoo problème bi ci yow la bàyyeekoo mooy dèjà jaamu yàlla gi am na problème parce que yaa ci dugal problème loolu ñu bàyyi ci xel bu baax a baax a baax beneen bi mooy athiqatu tajalul abda radiyan billaahi anillah jaam bi bu wóoloo yàlla lu bàyyeekoo ci yàlla ñëw ci moom da koy doyloo mooy athiqatu billah anillah day wóolu yàlla li bàyyeekoo ci yàlla ñëw ci moom da koy wóolu da ci da ci doyloo loolu moo tax yonente bi alayhi salaam ci abbas ibn abdil mu ne annahu samia rasul sallallahu alayhi wa sallam yaqul zaaqa taama al imaani man radiya billahi rabba wa bil diina wa bi muhammadin sallallahu alayhi wa sallama rasula nee na ñam na li nga xam ni moom mooy cafka yi ngëm ku doyloo yàlla muy boromam lislaam mu doyloo ko muy diineem mu doyloo yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam muy muy yonentam xadis bi xadis bu wér la mi ngi ci saxiix muslim ñenn ñi iskaale bi ñu ciy am mooy xadis bi ni mu dikkee nii raditu billaahi rabban wa bil islaami diinan wa bi muhammadin sallallahu alayhi wa sallam rasulan dafa ñëw ci azkaaru sabaax wal masaa waaye ñëw googu mu ñëw ci azkaaru sabaax wal masaa boroom xam-xam yi ku demee ni cheikhul albani ak ñeneen ne dafa daif askar bi noonu mu ñëwee ci askaru sabax wal masa da dafa daif d'accord noonu mu fa ñëwee foofa dafa daif mais tudd ko ak def ko zikr raditu billahi rabban wa bi islaami diinan wa bi muhammadin rasula loolu askar wa sabax wal masa wér na parce que xadis baa ngi saxi muslim mu ne ku ko doyloo ku ko doyloo ku doyloo yàlla ne mooy boromam lislaam mooy diineem yenn ci yàlla muhammad mooy yenantam nee na kooku mooy ki ñam caf kay ngëm yàlla zaaqa tu'mal iman kooku mooy ki ñam caf kay ngëm yàlla alxaatim al ci waxam jooju xëy na ci la ñuy jeexale ak xadiisu soxibu ar nee na man asbaxa képp ku xëy a ci ab bés wa huwa mustaqimun fi arbaati ashyaa te yaa ngi làmboo ñeenti mbir ci bës bi nee na fa huwa yataqallabu fi ridallah kooku ne yëg ne mi ngi dox ci bës boobu ci ngërmande yàlla ñu ne ko yan la bu ne awaluha athiqatu billah mooy ku xëy wóolu yàlla xëy ci bës bi wóolu yàlla ci say mbir yépp nee na summa tawakkulu topp nga wàkkirlu ci moom wéer ko say mbir summal ixlaasu nee na topp nga daal di eh, sellal bés boobu say mbir yépp loo ciy def nga sellal ko te yàlla rek tax nee na summal maarifa teg ci nga xam dayo yàlla nee na kooka ne yëg ne bés boobu bés boobu yàlla gërëm na bésam boobu mi ngi ci bés mi ngi mi ngi dund bés boo xam ni yàlla gërëm na bés bi mbokk yi wóolu yàlla asixatu billah tuujibu lil muslim at tafwida li ma xada bihi rabbu euh, rab bi ma xada bihi rabbul ibaadi azal day tax moom li ma waxoon sànq dafay dund dund ki nga xam ni mooy ki doyloo li yàlla dogal ci moom yonent bi alei salaam ci xadis suhayb arumi dane ajaban li amril mu'min ak a yéeme mbiru jullit bi keneen mbiram yéemewu fi amu fi kenn ku sa mbir yéeme ku dul mbiru jullit bi parce que ku fi yéemal mbiru keneen yaa ko yéemal te yow yàlla yónni wu la ki yàlla yónni mbiru kenn la yéemloo la wax ne moo yéeme waxul leneen yéeme li mu wax mooy li yéeme mooy mbiru jullit bi kenn ku wax na leneen yéeme na yow la engage mais yeneen bi waxam ñun waxam moo ñu engagé te nee na ajaban li amril mu'min nee na ki gëm yàlla ak a yéeme mbir te wallaahi wax na dëgg mbiru ku gëm yàlla dafa yéeme boo ko xoolee mu ne inna amrahu kullahu xayr mbiram yépp yiw la ci gëm yàlla rek ko am loolu moo tax mu yéeme nee na wa laysa zalika li ahadin illa lil mumin te loolu kenn amu ko loolu ki gëm yàlla ki ne ci lislaam nee na in asaabathu sarraau shakar fa kaana xayran la bu fekkee yiw dikkal na ko mu sant yàlla su boobaa yiw la yàlla bindal ko ci yiw wa in asaabathu darraa bu fekkee nattu dikkal na ko coono dikkal na ko jafe-jafe métit sabara bu muñ ko fa kaana xayran lahu ñu bindal ko ci tuyaaba nee na loolu kenn amu nga ko dul ci loolu moo tax mbiram yéeme na ibn Abdul Aziz daana wax ni asbaxtu wa maali surur illa fi mawaqi al ci beneen riwaay asbaxtu wa maali surur illa bi siqati billah nee na su ma xëyee du ma am mbégte lu dul ne damay yëg ne sama mbir yépp wóolu naa ci yàlla sama mbir yépp doyloo naa ci yàlla nee na bés boo xam ne xëy naa sentiruma loolu nee na du ci kontaan du am mbégte du am mbégte beneen bi wóolu yàlla dafay waral wàkkirlu gu mat sëkk ak dimbandikoo gu mat sëkk ci yàlla bàyyi leneen lu dul moom moo tax yonent bi alayhi salaatu wasalaam mu bokkoon ci ñaanam ni ko anas ibn malik nettalee abu daawud solo ko mu nekk xadis bu wér daane wax ne allahuma anta adudi wa nasiri wa bika axuulu wa bika asuulu wa bika uqaatil danañ wax ni ñaan bi daana ko def rawatina buy buy buy tàmbali xare daana wax ni sunu boroom ci yow laay puiser samay force ci yow laay tànqee doole yaay sama doole yaay sama ndimbal yaay sama kàttan ci yow laay sukkandiku nga jox ma doole biir ci yow laay tàmbale ci sa kattan gi nga may jox ci lay ubbee xeex bi ubbi ka uqaatilu nee na mooy ñaan génn bi daan def saa su ne anas moo ca yokk mu ne yonent bi alayhi salaatu salaam fàttalikuwuma fu ma déggee mu def ñaan boobu amul ndimbal fàttalikuwuma ko ma dem ci xare dégg mu def ko te boobu amul ci ndimbal nee na gisuma ko beneen bi euh, man wasiqa billaahi najaahu min kulli xar min kulli karbin wa hammin ku wóolu yàlla ci lépp yàlla fajal la mbooleem say tolof tolof parce que amu fi keneen ku ko mën a faj ku dul moom te bokk na ci bunt bi mu koy jaarale mooy nga wóolu ko borom bi nee na wa man yumin billahi yahdi qalba ku gëm yàlla gëm yàlla gu dëggu yàlla dëgëral sa xol jubal sa xol mu wax ni wa man yatawakkal ala allahi foo boo ku wéeru ci yàlla yàlla doy na la kon aajowootoo li nga xam ne moom mooy leneen loolu moo tax wóolu yàlla li koy jëmmal dañ koy jeexalee ci ñaari xadis yi taxaw foofu mooy wax ji Omar ibnul Xataab wax radiyallahu anhu mu nekk xadis bu wér tamit boo xam ne limaam ahmad solo na ko nee na euh, omar dafa wax ni law annakum mu ne dégg naa ci yonente bi alayhi salatu wasalaam annahu samia nabiyallahi salaa sallam yaqul law annakum tatawakkaluuna ala allahi xaqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqu tayru taxdu ximaasan wa taruuhu bitaana nee na bu fekkoon ne yéen dëgg-dëgg da di wóolu yàlla wéeru ci yàlla comme am picc ni muy wéeroo ci yàlla picc mi buy xëy suba teel biir bi day woyof day jékki-jékki rek naaw jëm benn boor gëm ni wóolu ne yàlla dana ko fa jox lu mu lekk mu dem fekk ñu sotti fii gerte sotti fii dugub mu fekk fii ay ceeb fekk fi ay nangam dóor ci dóor ci ba biir bi fees mu naaw ñibbi siwaat mais day xëy tax doo ximaasan day xëy biir bi day xiif wataruuxu bitaanan buy ñibbisi si biir bi day fees dal nee na bu fekkoon ni dëgg-dëgg yonent bi moo ne bu fekkoon ni dëgg-dëgg noonu mu picc di wàkkirloo noonu mu wóoloo boromam noonu ngeen ko wóoloo nee na kon dana leen wërsëgal na muy wërsëgalee picc ma waaye nit ñi gis nga buntu wërsëg sax wóoluwuñ ci yàlla buntu wërsëg wóoluwuñ ci yàlla waaw il faut ñu dugal ci ci bokkul bu leen waxee ni am na yooy def donte yàlla tere la dana la may bay rek wala dana tax say mbir jar wala say mbir dox su boobaa jaral na leen dem defi loola donte lu yàlla tere la donte lu yàlla tere la moo tax euh, yàlla boo demee ba wóolootoo ko rek xel mu nëx sax la lay jural tey boo gisee nit ñi ci wàllu wërsëg benn waay mën a toog ci benn marché ne day jaay loo xam ne day tax mu jar tuddee ko bayre bayre la koy tuddee gal ñu bayre naan la boo ko takkee loo jaay mu jar boo jaayoo sax jar te li muy jaay moom jarut ba pare nit di ko njëkkante moom mi ngi takk micro am haut nekk ci buntu marché bi naan la garabu bayre loo jaay mu jar boo ko jaayoo jar te li muy jaay moom jarut nit ñi di ko njëkkante waaw xanaa war nañ xoolaat seen bopp ñàkk wóolu yàlla day lëndamal xel nëxal ko dangay dem a dem ba yàlla boo wéerootul ci moom mu jox la nga wéeru ci lu ñàkk solo comme ni mu ko waxee woon ñi nga xam ne dañoo bàyyi yàlla dem làqu ci leneen lu dul yàlla dafa mel ni ñu làqatu ci néegu jargoñ te néeg bi gën a faible ci néeg yi mooy néegu jargoñ wa inna awhanal ci la baytul ankabut loolu mooy li nga xam ni mooy li mat a xam bu baax a baax na ci xadiisu abi darda muy xadiis bu yéeme boo xam ne ibnu abi asib moo ko génnee ci sunnaam nee na inna rizqa la yatlubu yet abda kama yatlubuhu ajaluhu nee na wërsëg day ñëw di wër boroom comme ni dee di wëree boroom dee xam nga du jaawale boroom du ñëw war a rey kooka war a rey kële kenn bëggul ñu tudd tur yi war a rey kële dee du def loolu malakul mawt ki mu war a jël du ci moy yàlla ki mu wax ne àppam jeex na kooku moom mooy dem ki àppam jeexul du dem du ñëw di jaawale loo fekk ab néeg ñetti tëdd ci mu ñëw jël keneen kii fekk kii la waroon jël du def loolu mu ne ni dee di wëree boromam ba ñëw ci moom jël ko wërsëg noonu lay wëree boromam wallaahi li nga war a lekk li nga war a sol li nga war a naan du la mooy ci yow lay ñëw munul dem ci keneen munul nit mënta def ay ñeengu def ay pouvoir luxus njabar def ay montage am lu ko neex ba mooy la dem dem ci dem ci keneen munul nekk wallaahi wërsëg bi yàlla wax ne lii wërsëgu diw la ci diw la jëm kenn mënu ko téye comme ni nga xamee ni dee jubal ci diw ci diw rek la jëm kenn mënu ko kenn mënu ko orienté wala kenn mënu ko désorienté mu dem ci keneen mënta nekk loolu moo tax mu ne inna risque la yatlubu al abda kama yatlubuhu ajaluhu nee na wërsëg day wër boroom comme ni dee di wëree boroom xadis boobu xadis boobu la cheikhul albani wër na ko ak ñeneen bi tege mooy xadisu jaabir moo it mook xadis bi ñoo bokk la ñuy wax mu doon xadis bu yéemee nee na qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam law anna bna aadama haraba min rizqihi kama yahrubu min al mawti la adrakahu rizquhu kama yadrikuhu al mawt boobu abu nuaym mu solo na ko ak tabaraani eh, cheikhul albani wéral na ko ci as silsilatu asaxiha ci deuxième tome bi nee na law anna bna aadam bu fekkoon doomu aadama xarabu min rizqihi dafay daw ci wërsëgam kama yahrubu min al mawt day daw wërsëgam wërsëg bi da koy daw moom comme ni muy dawee de la adrakahu rizquhu wërsëg gi dana ko dana ko dabi kama yudrikul mawtu comme ni ko dee di dabe léeg-léeg nga dégg koo xam ne danaan non damaa dégg ne yoon yi dafa accidenté du ma tukki tey parce que wu wóorut mu toog ki néegam dee fekk ko fa da day ñëw ci moom aynamaa takuunu yudrikumul mawtu dana woon du accident du tukki parce que day ragal parce que dafa dégg yoon yi dafa bëri accident dee ñëw fekk ko biir néegam mu ne wërsëg noonu la boo daw wër sa wërsëg nga koy daw nee na ni dee di wëree borom ba ñëw jël ko wërsëg gi noonu la lay wëree ba ñëw ci yow waaw loolu ku ko xam la ndax na ngay jalgati di triyaane di sàcc di naxaate pour mën a am wërsëg te yow sa wërsëg du la mooy foog mu ñëw ci yow doo doo du la ko jaral doo ko def da ngay wóolu yàlla ne sa wërsëg dina ñëw ci yow loolu dañu bàyyi ci xel bu baax a baax a baax euh, Eh, abi xaasim di salamata ibnu dinaar dane eh, benn waay daf ma fekk ma toog mu ne ma yaa aba xaasim maa maaluka mu ne ma yow lan mooy sa koom sa koom-koom sa économie sa alal lan la qaala siqati billahi taala man damaa wóolu yàlla fi ma nekk nii li may def laay def te xam ne li ma war a jot danaa ko jot li ma war a am danaa ko am li war a ñëw dana ñëw wa iyaasi mimma fi aydi nnaas soxlawu ma di lekk ci loxo yi nit ñi dama cay décourage dama cee tàyyi aw ma ci soxla lii rek mooy sama koom mbokk yi li gën a rëy ci wóolu yàlla subhaanahu wa taala mooy man taxallaa bi haadihi sifa faqad faaza bil jannati wan naimi al muqim mooy texe gu màgg lay am te texe gu màgg mooy àjjana ak ay xéewalam àjjana ak ay xéewalam kon loolu mooy li nga xam ni moom lañ dajale woon ci tam bi si jub ñu santee ko borom bi lu ci manqué ñu xam ne ñun la di ñaan suñu borom mu may ñu siqa di ñaan yàlla mu boole ñu ci jaam yi nga xam ne dañ koo wóolu dañ koo gëm dañ koo doyloo dañ koo wàkkirlu haza wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain jazakumullahu xeyran ustaas abu muhammad yal na yàlla subhanahu wa taala fay yiw yaakaar naa ne wax ji du gudd ndax kenn ku nekk ci ñun déglu na waxtaan wa fa mu tàmbalee ba fii mu nekk mooy ni romb na sunu njort ci leer ak ci faram ndax ci tàmbali gi wax nañu dëgg-dëgg lan moo tax ñu waxtaane thème bi ndaxte dañ koo aajowoo dëgg-dëgg ndax borom bi subhaanahu wa taala ñu bindee ak ni mu bindee kaw na bi mënuñoo ñàkk ay problème mënuñoo ñàkk ay jafe-jafe looloo tax ñu aajowoo dëgg-dëgg di dëgërloo borom bi subhaanahu wa taala ak du delluwaat ci moom saa su ne mu wax ñu importance bi dëgg-dëgg ni mu mel mu jox ñu exemple ni dafa mel ni bëtu doomu aadama kon a xam na ni dafa am ñaari couleur bu weex ak bu ñuul lu ñuul li mooy gis importance boobu nag lu ñuul li am ci bët bi lu mel noonu la wóolu yàlla ak dëgërloo ko am ci suñu dund kon yàlla na yàlla subhaanahu wa taala fay ko dëgg-dëgg fay lii nga xam ne moom la fi wax mu daal di jariñ ñu ñu daal di koy jëfe insisté na bu baax a baax tamit di wax ni waxu yàlla subhaanahu wa ak waxu yonente bi alayhi salaatu wasalaam du fanaan biti sama benn mbokk du ñàkk mi ngi fii ci jataay bi dañoo toog di jàng bés keroog lay doog a dégg xadis boobu mu dégg ni yonente bi alayhi salaatu wasalaam nee na diggante bi nga xam ne waa ji mi ngi nodd ak diggante julli lu fa waay ñaan yàlla subhaanahu wa taala daal di koy nangu keroog lay doog a dégg xadis boobu nee na te boobu jamono boobu mi ngi am si ay problème yoo xam ni yàlla rek moo xam nu mu toll bu tëddee moom lay tëddaale buy dox moom lay doxaale nee na waa ji bi mu noddee gée ñuy waajal julli euh, ñuy waajal julli mu yëkkati ay loxoom daal di ñaan keroog bi mu yeewoo huit heures la ma woo mbooleem soxla yooyu nga xam ne moom la doon dox dañ ko doon woo ko ñëwal di ko woon wax ñëwal sa soxla yi nga doon kii benn bu si nekk faju na kon loolu day wane ni wóolu yàlla subhaanahu wa taala ak bàyyiwaat xel waxu yonent bi alayhi salaatu wasalaam du fanaan biti kon mbir mi dafay delluwaat si ñun ak defaruwaat yàlla na yàlla subhaanahu wa may ñu siqa billah dëgg-dëgg euh, comme ni ngeen ko xamee mooy waxtaan wi day nekk ñaari pàcc mooy bi mu wax ak li nga xam ne moom mooy question yi te xam naa ni laal la du fi xaj mi ngi noonu kon li nga xam ne moom la ñuy sàkku rek ci oustaz mu ñaaxal ñu mbokk yi ak li nga xam moo fi programme bi fi am muy dogal aji woor te mbokk maa ngi nela ci bunt bi di xaar mbokk yi ñëw joxe la nga xam ne moom la ñu am fii la ngir ñu dogal mbokk yi nga xam ne ñoom ñooy nekk fii si jàkka ji fa jazakumullah joxe ci yoonu yàlla moom ak ci weer wi ñu nekk loolu xëy na ay fàttali lay nekk mais daanaka bi commencement koor gi wala waajal koor gi ba léegi ci la nit ñiy wax dara gënu rëy rek ki woor nga am tuyaabaam loolu rek doy na parce que sa koor moom euh, da ngay rafet njort rafet njort bu baax ne yàlla dina ko nangu loolu nga rafet njort doo ci sikki sàkk mais mën naa am ay gàllankoor yàlla yàlla bañ ko nangu mais keneen ki nga xam ne moom woor na yàlla bu di la fay moom yàlla tuyaabaam la lay fay. tuyaaba ki woor ki yàlla da la koy fay loolu moom day nekk luñ nangu yàlla du fayee luñ nanguwut du fayee luñ nanguwut yàlla da lay fay luñ nangu loolu moo tax wooral ki dogal ki woor loolu foofu la njëriñ gi nekk sa koor yow bu manqué it bee moom tuyaaba yi assuré na du moo tax mu doon mu am njëriñ bu baax a baax te loolu nit ki mënu ko am lu dul ci dogal ki nga xam ne moom mooy ki woor wa jazakumullah xeyran hada wa sallallahu wa sallam ala nabiyina muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain membre yi ci groupe dégg diine ci mbooleem ay sipooram ñu ngi leen di nuyu nuyoob lislaam di leen wax asalaamu aleykum wa rahmatullah umpule woo leen mukk taxawaay bi dégg diine am ci tasaare xam-xam ak yaatal daawa sunna ci biir senegaal ak li ko wër doomu réewum Sénégal di ci jëriñu ci biir réew mi ba ci bitim réew mu leen di jottali xam-xam bu dëppook alquraanul karim ak sunna yonent bi sallallahu alayhi wa ak fu ngeen mën a nekk ci réewi àdduna bi liggéey bu rëy bii nag yeyoo nañu taxawu ko saxal ay dëggoom ba mu gën a mën a taxawe liggéeyam looloo tax dégg diine aajowoo yaatal couverture am ci yeneen région wu Sénégal yi ci lu génn Dakar ak di beesalaat ay matériel am saa su nekk ak lu koy jàppale ci yembal ay frais de fonctionnement wam looloo tax direction bu dégg diine ubbi buntu yiw tàllal ci loxo ay aboneem ak ay membram ci ay cotisation yoo xam ne nag coobarewu rekk la lu ko tàmbalee ci 200 francs ba ci 500 francs ba ci lu ko ëpp ci weer wu nekk loolu mën a doon ndimbal lu rëy ngir dégg diine gën a mën a taxawu liggéeyam ngeen mën a joxe seeni participation jaarale ko ci numéro bile 78 514 78 38 ngeen mën ko jaarale ci Wave Orange Money Wizall Ria wala Western dégg diine seen loxo ci biir ngir mu gën a mën a jëm ci kanam ngir mu gën a mën a jëm ci kanam ngir mu gën a mën a jëm ci kanam